salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar hamaani ala maahin mahal habsa wa safar salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar hamaani ala maahin mahal habsa wa safar. alhamdulilah alhamdulilah. رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه بجميع مقتفيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euh, bokk yi Washington ginnaaw bu nu santee yàlla sunu borom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ko teg ci loxol euh, sëriñ Mbàkke Madina ak loxol sëriñ Mamor ñu teg ko ci loxol seen kilifa sëriñ Abdullahi Mbàkke yàlla buur mi nga xam ne mooy jëwriñi Mamor Jaara di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may fan wu gudd te yàlla na ko yàlla may wér ba li mu yéene liggéeyal boroom Saam mu liggéey ko te na mu gën a rafete te lépp yàlla nañ ko ànd ak moom teewoon nañ ci waxtu wi daaw yàlla mi nga xam ne moom rekk man bàyyi nu fi nu ànd ak wér ànd ak tal ba fekkewaat ko yàlla ñu may yàlla nañ ko fekkewaat at yu baree baree bare di sant góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi xam naa danaa am tuuti jafe-jafe ndax ñi ma jiitu wax dëgg yàlla su lu baax doon doy ma ne liñ fi wax doy na sëkk sunu rak sëriñ Abdoulaye Diop Bichri wax na fi wax joo xam ne xol yëpp sedd Euh, xel yëpp dal yal na ko yàlla fay te yàlla na ko yàlla def mag te mu dajeek ngërëmul yàlla ak mbégum sëriñ Touba sunu mag tam sëriñ Saalixu Sow feelu ko moom itam euh, ak ni mu jekkoo waxtaan xam ngeen ko euh, daanaka li koy doy ci temps wax dëgg yàlla su ko amoon man moo may gënal ndaxte dafa dugg ci bunt boo xam ne mëni su ko gàttal euh, waaye lim ci jot a wax bari na njariñ moom itam yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla euh, bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg euh, xam ngeen ne bis bi bisu borom Saam la muy Mamor Jaara ñu ko daan wooyee magi mag ren nag ñu tànnoon thème boo xam ne dañu ci waxtaan ci sunu biir muy lu jëm ci ak bokk ak ni ñu ko war a sàmme ak ni ñu ko war a rafetale ni ko sëriñ euh, Abdou Lahad Mbacké ki may waxee woon sànq sëriñ Saalih Sow tam jaar ci mooy fàttaliku ku baax ak lu baax li tax mu am njariñ day tax nga xam lu baax xam ku baax nit ki lu ñuy waxtaane lu bari rek bu yàggee da koy xam te su ko xamee da koy bëgg ndax nit du bëgg lu mu xamul te soo ko bëggee bu dee lu mat danga koy roy te ku ne xam na ne borom saam léppam dafa mat a te itam fàttaliku ku baax dafa ñuy jàngal ne li ko fi jëlee duñu fi bàyyi kon nag jéem jaar fa mu jaaroon ba am ndam euh, mooy li nga xam ne moo nu war ba tey fàttali ko dem ku baax di ko roy xam ngeen ne Serigne Salih waxoon na ko nee na ku baax li tax mu mat a roy soo munta mel ni moom it da ngay raw say moroom loolu moo tax ñuy fàttaliku ñu baax ñi di waxtaane seeni jaar-jaar seeni qualité seeni jikko euh, ba tax euh, ku bëgg a roy danga am foo teg sab tànk kon yàlla na nu yàlla fayal boroom Cham ak mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikhul Khadim te ñëpp mat sëkk ay royukaay euh, li tax waxtaane ak bokk am solo xam ngeen ni nit la yàlla bind mënta dem moom dong kenn ku mën a dem yow dong amul nit euh, mënul ñàkk nit soo nekkoon ci àll àll àll bu lëndëm gisoo nit ànd yow dong ay garab ak ay rab képp euh, nga di ko gis boo doxee ba gis nit ak ku mu mën a doon da ngay daal di jàpp ne gis nga sa mbokk donte xamoo fu mu soqi ko donte bokku leen kàllaama donte bokk leen sax der mu mu mu weex nga ñuul waaye da nga jàpp ne gis nga sa mbokk mbooloo tam lu ñu bari bari bu ñu dee ni ñu weex boo ca gisee ku ñuul da ngay jàpp ne mooy sa mbokk nit ku ñuul gi tam lu ñu bari bari bari ñëpp ñuul boo ci déggee ku wax sa kalaama dangay nga jàpp ne mooy sa mbokk kon nit ki li ko gën a jege euh, da koy sóoraale da koy bàyyi xel loolu moo tax euh, nit war a bàyyi xel ci li nga xam ne mooy ak mbokk nit nag dafa war a xam ne ak mbokk yàlla da ko fonk ndax moo ko def nit mën naa euh, takk soxna fu ko soob nit mën naa xaritoo ak ku ko soob nit mën naa ànd ak ku ko soob waaye mbokk moom nit du ko amee nam ko soobe dangay juddu rek fekk say bokk ñu ne kii mooy sa bàjjan kii mooy sa nijaay kii mooy sa tànt kii mooy sa baay waaye kenn du sàkk ay bokkam ak bokk yàlla ko sàkk moo tax yàlla wax na ci xadis qudsi ne man maay raxmaan ma te te maa bind raxim raxim mooy ak bokk te ku dégg rahim xam ne mu ngi soqi koo ci rahman mu ne man may rahman ma bind ak bokk sàkkal ko aw tur ci sama tur képp ko ko jokk ma jokk la képp koo ko dagg ma dagg la euh, bu ñu demee ci alxuraan dañuy gis yàlla di wax lu bari ci ak mbokk foo jàng rek da gis muy tudd ak mbokk te yàlla lu mu wax ci alxuraan ñor na ko wax na ne fa qurba xaqa mooy sa mbokk na nga ko jox àqam waxaat na tam ne wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi zil qurba kon yàlla dafa bëgg nga jox ko xàqam jox say waajur seen àq waaye jox say bokk seen àq kon foo dem ci alquran da nga gis ne yàlla dafay tudd lu bari eh, ak mbokk yàlla fonk ko lool wax ko fu ne yonent bi fonk ko lool wax ko fu ne sëriñ bi fonk ko lool wax ko fu ne waaye ñun li ñu jaaxal mooy Sénégal ga ñu dëkk dangay dégg wolof yi di léebu naan ku rey say noon say bokk jeex ku rey say noon say bokk jeex li muy firi mooy kon say bokk ñooy say noon ñi la gën a jege nga war leen a gën a sopp war leen a gën a wóolu war leen a gën a fonk ñooy say noon la ko waral mooy concurrence wujje ak xëccoo xëccoo àdduna nit ki li li muy yóotu dafay bëgg moom rek moo cay jot bu séen bu seenee keneen ku koy yóotu mu ne kii mooy sama wujj te ñépp bëgg lu baax ñépp fonk seen bopp kon li ngay yóotu nit di ko yóotu ni yow bu ko def wujj da jàpp rek ne kiy joxe kenn la te du jeexle te mooy yàlla subhaanahu wa taala waaye ku rey say noonu say bokk jeex léeb la woo xam ne wu ñaaw la waaye mooy dëgg kon nag ñàkk teg suñu tànk fa yàlla santaane ñàkk jaar fa yonent bi jaaroon ñàkk dégg ndigalul cheikhul xadim moo tax ay bokk di noonu te ak bokk am ngi solo buñ ko bëggee waxtaanee dañ ciy tënk tuuti rek du xaj ci waxtu wi gannaaw day lu am solo kon mat naa fonk lu tax nga war a fonk say bokk la ca jëkk mooy danga ko war a sante yàlla danga war a fonk say bokk sante ko yàlla ndax am na ñoo xam ne amuñu ay bokk ndax nit mën naa ñàkk bokk waaw ndax nit dana judd màgg doon màgg te du xam ndey ndeyam du xam baayam ku ñu for exemple ku ñu for du xam mbokkam man fekk naa ci Sénégal xale boo xam ne ba ñu koy sànni berceau ba ñu ko def dañu ko teg ci bundu kër boole ca biberon boole ca ay couche boole ca yu bari ak nag lettre wax ne doom ji may sànni sànniwuma ko wante condition yi ma ko amee dafa metti dama koy dénkaane xale ba léegi am na jëkkër man xam naa ko mais kenn xamul ndeyam kenn xamul baayam yow mi nga xam ne boo geesoo gis sa ndey boo geesoo gis sa baay gis say bokk war nga koo sant yàlla te xam ne am nga lu lu lu am nga loo xam ne sa moroom amu ko ana nooy sant yàlla kon xool li yàlla santaane ji ak bokk nga fas ko yéene jëfe jokk ak bokk day wane ne danga gëm yàlla ndax yonent bi nee na ku gëm yàlla gëm bis pénc gëm ne su ëllëgee loo jëf yàlla fay la ko na nga jokk sag bokk man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yasil rahima kon soo dee jokk ak ak bokk day day day dangay joxe uh, firnde ci ne gëm nga yàlla ba tege mooy jokk ak bokk topp yàlla la ndax yàlla moo ko santaane soo ko jëfee yaa ngi topp yàlla walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal yàlla li mu santaane boo ko jëfee yaa ngi topp yàlla jokk ak bokk soo soo ko dee def yàlla dalay jokk ndax yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dagg ma dagg la euh, jokk ak bokk soo ko dee def day waral da ngay faatu rek daagu dugg àjjana te kenn ku ne ñu ñun loolu rek la bëgg mooy li sëñ Saliou Sow doon waxee léegi mu raglu lool ñu bañ koo gis bañ koo dégg te am na ñoo xam ne al euh, bis yi li muy raglu raglu ak fitna yaag tàngoor waag jaaxle ga am na ñoo xam ne duñ ca jaar yàlla nuñ ci yàlla boole soo dee jokk sa bokk euh, day tax boo faatoo da ngay daagu dugg àjjana yonent bi nee na yaa ayyuhan naasu afshu salaama wa atimu taama wa sallu bi leyli wa naas niyaam wasilul arxaama tadxulul jannat bi salaam nee na nit ñi dee leen joxe ñam tey fonk nuyoo nuyoo dafa am solo ndax koo nuyu day xam ne jàmm nga ko ëmbal tey jo jokk seenu bokk te su guddee ba suuf sedd ba ndaw ko ndaa yi di nelaw nga jóg di naafi la nee na bu ngeen defee yi dangeen ngeen di daagu dugg àjjana euh, ba ci tege mooy ñun ñëpp bëgg nañu bëgg nañu yaar yi muy mucc ak mos mucc ak mos mucc mooy gudd fan yàgg fi mos mooy am xéewal am wërsëg loolu ñun ñëpp dañ koo bëgg yonent bi nee na ah, ku bëgg yàlla may la fan wu gudd may la wërsëg wu yaatu na nga jokk sa bokk man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asari fal yasil rahima kon ndeke jokk ak bokk day tax a gudd fan day taxa am wërsëg wu yaatu ah, jokk ak bokk day tax yàlla jéggal la say bàkkaar dafa am ku ma su ñëw ci yonent bi ne ko damaa def njaaxum ngoo xam ne xaw ma fu ma jëm ak moom dama tooñ yàlla te xaw ma fu ma jëm xaw ma nu may def ba yàlla jéggal ma mu ne ko ndax am nga ndey ndax am nga yaay mu ne ko déedéet mu ne ko ndax am nga tànt mu ne ko waaw mu ne ko demal nga teral ko demal nga toppatoo ko ndeket kon toppatoo say waajur yi la gën a jege bu ñu fa nekkul ya sës day tax sunu borom jéggal la say bàkkaar te bari na ci jamono ji ñoo xam ne amuñ la ci waajur waxuma la nag meneen mbokk waaye toppatoo say waajur day tax nga mucc ci ay bàkkaar day tax yàlla faral la say bàkkaar kon bu ñu toppee njariñu dox ak bokk du ñu ko mën a jeexal waaye dañuy wax ne gannaaw nii la amee solo ndax jokk ak bokk mooy bu sëriñ mamoor solee dàllam seet si ma ma seeti ko su ma teralee ma teral ko su ma amee yitte mu ànd ak man dox ko su amee soxla ma ànd ak moom dox ko mu ne ci man ma ne ci moom ndax loolu mooy jokk ak bokk déedéet loolu fay bor la ku la defal nga defal ko loolu mooy fay bor te wolof nee na ku mënta leble tam war a mën a fay bor lislaam bëggul nga yem ci fay bor dafa bëgg ngay leble dafa bëgg ku la xañ alalam yow nga jox ko jox ko sa alal ku la sori yow nanga ko jege ku la bañ yow na ko bëgg ku lay ku koo xam da nga koo soof yow nanga ko saf safoo kon yaa ngi leble waaye nu la nit def nga def ko ko loola yomb na loola du ngóora loola fay bor la te as dafa war a fay bor ndax ku munta leble war a mën a fay bor moo tax yonent bi nee na laysal waasilu bil bil mukaafi nee na ki kiy fay bor nee na jokkul ak bokk walakin al waasil alladi ida qutiat rahimuhu rahimuhu wasalaha nee na kiy jokk ak bokk mooy koo xam ne bu ñu ko daggee moom day jokk nit da koy soof du la bëgg gis ak bët waaye yow danga koy safoo dalay xañ yow da koy jox dalay daw yow yow koy jege loolu mooy jokk ak bokk waaye nu ma nit nit def ma ku baax ci man ma baax ci moom ku bon ci man ma bon ci moom du jokk ak bokk da ngay leble te bañ a yem ci fay bor moo tax am na ku ma sa ñëw ci yonent bi ne ko dama am mbokk yoo xam ne dama leen di jokk ñoom ñu di ma dagg ma di leen may def ci ñoom lu rafet ñoom ñuy def ci man lu ñaaw ñoom lu ñu def muy jàmm man lu ma def muy ay mu ne ko bu fekkee ni nga ko waxee ni la demee de yaa ngi mel ni ku leen di jox ab gël ñu di ko mëq gël mooy doom bu tàng wala suuf su tàng ne ko yàlla nag lam lay fayee mooy ba faw yaa leen di tiim yaa leen di tiim ba faw kon sa mbokk soo baaxee ci moom mu bon ci yow di ko jox mu di la xañ di ko safoo moom nga di ko soof di rafetal muy ñaawal na nga xam ne yàlla du la seetaan faw yaa koy tiim bu ñu nee fonk ak mbokk nag bu kenn defee ne ndey ak baay dañ caa bokk wolof nee na bu ñuy ñuy limi xeet ndey bokku ci bu ñu wax fonk ak mbokk dañoo jëllale ndey ak baay ñoom dañ leen a jëllale euh, xam ngeen ne am na ku ma ñëw ci yonent bi ne ko kan laa kan laa war a gën a fonk ci àdduna mu ne ko sa ndey mu ne ko ak kan mu ne ko sa ndey ak kan mu ne ko sa ndey ak kan mu ne ko ak sa baay ndax dafa xam xàq ndey dafa xam coonoom ndey ak li mu daj ci doom ñun góor ñi ku ci sa bër ku ci sa biir gonflé woon ñetti fan rek nga defee ne day dikk na gonflé ñetti fan nga defee ne day dikk na ñoom nag seen biir day gonflé juróom-ñeenti weer saa bu xëyee di gën a gonflé di gën a yokk di gën a yokk dis gann ñu koy yendoo ak a fanaanoo jigéen su ëmbee ba sori sax doom ji dafay yëngatu di wëlbatiku ci biiram mu di ko yëg li ngay lekk ci ci loolu lay jëfandiku te li muy génn itam ci si biir la koy génne yu doy yu doy waar te boo wasinee dañ naan mucc na sama soxna mucc na mooy mi ngi wan diggante dund ak dee waaye mucc na te su muccee nag fa coono ba nag gën a tàmbalee nag ndax yor doom di ko di ko di ko di ko saytu di ko toppatoo coonoom kenn xamul nu nu mu mel kooku soo demee ba doon muskàllaf yàlla mane la gan soo ko fàttee fa naar ba xoromam moo tax yonent bi ne ko sa ndey sa ndey sa ndey doon na ko ak sa baay waaye teewul xàq baay itam àq la ju rëy moo tax alquran fu mu tuddee àq yàlla da ciy teg àqi wajur wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaana nee na soo noppee ci sama xaq na nga ci teg àqi waajur moo tax yonent bi nee na ki gën a ñàkk chance ki gën a ñàkk chance ki gën a ñàkk chance mooy ki nga xam ne dafa dund ak ndeyam ak baayam ba ñu màggat ba tële mu di leen seetaan ba làqul seen ngërëm say wajur màggat te laxasaayoo liggéey leen ba ñu gërëm la nee na kooku moo gën a ñàkk chance ci àdduna yàlla nu ci yàlla musal euh, moo tax euh, nga war kon laxasaayu nekk Baay Faal di leen liggéeyal ba làq seen gërëm ba ba ñuy faatoo bu ñu faatoo ndax nag sajaan sajaan wàcc na déedéet dafa am ku musa ñëw ci yonentu bi ne ko damay toppatoo samay waajur ba ñu faatu ndax léegi sama jaan wàcc na mu ko déedéet mu ne ko lu ma dese ci ñoom mu ne ko nga di leen ñaanal di leen sàkkul njéggal ci sunu boroom te luñ la batale na nga ko def te te tey jokk seenu bokk ndax léeg nga dégg ñu ne su mag ñi jeexee bokk gi jeex ndax xale yi duñu du ñu dox ak bokk kon nag del jokk seenu bokk euh, ak seeni xaritam de leen toppatoo kii sa xaritu ndey la def ko muy sa ndey kii xaritu sa baay la def ko muy sa baay loolu àq la joo xam ne bu ñu faatoo tam du la wàcc moo tax ñu baax ñëpp dañoo fonkoon seeni wayjur bu ngeen demee ci mbind Sëriñ Tuubaa fu ne day ñaanal ay ay wajuram wa najji nii wa jamii al muslimina maan lu mu ci teg wa najji walidati amin yàllaahu wa jaal jamii jamii ma jaaltuhu l buruur li walidaya xayr saayin wa shukuur wax wasaytanaa bi waalidiina xusna yaa man jaaltani xadiman xadiman asna kon buñ naan fonk mbokk waa jur taxul ñuy wax sooy toppatoo say mbokk nag ana yan wan yoon moo ci gën a ja gën a gaaw boo fa jaaree foog toppatoo say mbokk yoon wi yoon wu gàtt la ba ci njëkk mooy dangay bàyyi xel toppatoo say mbokk li muy jur li muy jur ci ngërëmul yàlla li muy gur li muy jur ci euh, yool li muy jur ci rafetoo gi nga xam ne moom ngeen di rafetoo te bu gën rafetoo jariñante waaye bu kenn ku nekk rek beroo jàppuk njaamuram euh, njariñ du feeñ ak ban ak dangay xool soo daggee sag bokk lu muy jur la muy jur muy njaaxum mooy yàlla dalay jéppi dalay mere te tëkku nu kuy dagg ak mbokkam wax na ne kuy dagg ak mbokkam du dem àjjana ba ca tege moo di soo bëggee jokk say mbokk da ngay xool ñay def lu ñaaw ci yow yow ngay def lu rafet ci ñoom bul yem ci ku def lu rafet nga def lu rafet waaye ku def lu ñaaw yow defal lu rafet soo bëggee jokk ak mbokk dangay ngay jéggale ak a jéllale jéggale mooy ki ne baal ma àq nga jéggal ko jéllal mooy ki nga xam dalaa tooñ yëgaloo ko sa yaram mel ni defuloo dara ñu lay tooñ nga teg ci sa tànk mel ni dara xewul bokk na ci leen defar ak mbokk ngay ëmbal nit ñi jàmm ëmbal leen aw yiw nit ñi soo leen ëmbalee aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw aw yiw rek ngay am waaye am mbokk ëmbal ko safaan di wax ci moom safaan di jëf ci moom safaan soo ko defee yàlla jéppi la bokk na ci ni ñuy jokkee ak bokk mooy da ngay rafet njortu ci moom waaye ñu ne la sëñ Galas Mbàkke day dégg naa def na nàngam nga ne sëñ Galas de fii itam ëpp na loolu ñeme na lu ëpp loolu déedéet da nga naan ndax moo ko def ndax dëgg la dangay rafet njortu wax nañu ne am nañ mos nañu wax sëñ Fallou ne ko diw dafa dafa dafa gaaw ak julli ba kenn mënut ànd ak moom julli ndax dafa gaaw mu ne leen day bañ dara. rëcc ko ci ñu ne ko diw moom dafa yeex ba kenn mënta ànd ak moom julli mu ne da ko bëgg a jox àqam moo tax mu yeexal ko kon da rafet njort ci luñ la wax ci ab jullit waaye bul ñaaw njort ba ca teg mooy da ngay sàng sutura sa mbokk boo ko xamalee ab safaan da nga teg sab tànk ñun nag balaa su suñu suñ xol a sedd nga xamal sa mbokk ab safaan nga di ko weer ci mbooloo ci biir mbooloo yi te nit koo weer ci biir mbooloo xamal ne am nga noon mooy xamal ne xamal ne xamal ne yaay noonam te bu ko yëgee dalay def am noon kon nañuy sàngante suutura waaw moom la sëñ Tuubaa naan wa kun li kulli ma yasurru mubdiya wa kullu ma yasuuhum lu rafet na ko feeñal comme suñu mbokki ñeeñu yi nu ñuy def boo leen mayee di ko nëbbu ñu ne teraanga dañ koy feeñal yëkkati ca kaw ñëpp di ko gis teraanga dañ koy feeñal lu baax daj dañ koy feeñal waaye ab safaan da koy nëbb bokk na ci li ñuy rafetale ak mbokk mooy nga ubbi sa xar kanam boo gisee sa mbokk ba ba mu bég waaye sa mbokk seet si la nga tëj sa kanam ba du la ñeme loolu day yàq ak mbokk sa mbokk dana ñëw sax nga taaj ko ndab du mën a lekk ndax dangay fas sa kanam boo feccee sa kanam xelam dal kon ubbi sa xar kanam dañ koy jokki ak bokk wax ju neex dañ koy jokki ak bokk wax lu ñaaw day yàq ak mbokk euh, jéggale ak jëlale wax naa ko léegi yërëm ndaw day defar ak mbokk ndax doom dafa sax ci xol koo bëgg doomam mu bëgg la gis nga xale ku muy daw di daanu ci kawam rek da ko ñeme waaye bu la ragalee du daanu ci sa kaw te xale bi ngay yërëm xamal ne ëllëg day màgg ñu naan baayoo bu fa bu fàttali ko soxor day am koo xam ne faalewul xale day dóor xale dafay jànni xale dafay boddi xale waaye ëllëg day màgg su màggee day fàttaliku te bu fàttalikoo lu ñaaw li nga ko daan def seenu bokk day yàqu kon da ngay rafetal ci ndaw ñi ni ngay rafetal ci mag ñi da ngay respecté mag ki la mat wayjur muy góor muy jigéen def ko ni nga def sa wayjur bu ko defee njabootam dañ lay fonk waaye koo xeeb ndeyam mu xeeb la xeeb sa ndey koo xeeb baayam mu xeeb la xeeb sa baay am na bis yonent bi saa sallam wax bokk na ci bàkkar yi gën a màgg nit di saaga ay waajuram ñu ne ko ndax nit am na fitu saaga waajuram mu ne ah kay da ngay saaga waajuru jàmbur mu saaga sa waajur su boobaa yow yaa saaga sa waajur kon koo fonkal kilifaam mu fonkal la sa kilifa loolu dana rafetal ak bokk bokk na ci li rafetal ak bokk kenn ku nekk na ko yàlla def nga def ko noona loolu dafa feeñ ci diggante sëriñ Touba ak Mamor Diarra sëriñ Touba day kiimtaanuk yàlla Mamor Diarra nangu ni kii kii kiimtaanuk yàlla moo tax mu sukk jébbalu comme ni murid yëpp def doon taalibeb sëriñ Touba sëriñ Touba tam xam ne kii itam yàllaa ko tànn muy sama kilifa ndax moo ma jëkk ci àdduna mu def ko kilifa moom itam wax nañu ne su su ko mosaa soxla te dafa nekkoon ci ay loxo moom sëriñ bi dañu ko jàppoon daawul dem daawul dikk waaye su mosaa soxla Maam Mor Jaara ba yebal ndaw danaa ko soo demee ne dama ko soxla waaye booy dem bul àggi <laughs> fit fit na na ànd ak dal wax ko ko ndànk te toog déglu ko su jógee toppal ci ginnaawam bu ko wane ko dama koo yàkkamti noonu la ko daan wooyee te bu su ko wooyee itam ba mu ñëw danaan nañ ko yóbbu ci barab sàngam mu dal fa bu fa dalee moom sëñ sëñ bi mooy wuy ji Mamoor Jaara nag da koy woo waaye moo koy wuy ji moo koy fekk ndax nangul yàlla def ci moom moo tax mbokk bu ñu bëggee mu rafet da ngay nangu yàlla def ci sa mbokk moo tax Abbas ibnu Abdul Muttalib doonoon bàyyi tax yonent bi ba noppi nag nekk dugg ci lislaam jébbal jébbalu da koo teg fa mu ko war a teg dañ ko mos laaj ne ko yow ak yonent bi kan moo mag mu ne rasulullahi akbaru minni wa ana aqdamu minhu wilaadatan mu ne maa ko jëkk gane àdduna waaye moo ma mag maa ko jëkk juddu waaye moo ma mag loolu mooy lan moo ma gën du sama moroom waaye maa ko ëpp ay at gis nga danga ko jox cër bi ko yàlla jox moom la sëñ Moussa Ka naan maam Cheikh ba mu koy tagg teral nga say bokk teral aw jaambur ba ñëpp jag nga jàpp nag sang jaambur mooy say bokk yëpp da ngaa rafetal sa diggante ak ñoom kenn ku nekk nga def ko na ko yàlla def bokk na ci liy rafetal ak bokk di ko conseiller danga nga koo xam danaan diw day dégg naa nangam lay def waxuma dara nag waaye man maa ngi koy déglu rek gonek mbooye moom da koy xaar ca taatu ndaal bu amee problème dana ñëw ci man déedéet da koy conseiller balaa wax ak yow da ngay wax ak moom koo gis muy sa mbokk te nga te nga tane ko cim xel dee ko cons da nga koy xelal de ko xelal bul xaar mu lay laaj am xel waaye bàyyi ba mu jaaxle nga door a naan ah man de xamoon naa ne fii rek ngay mujj ndax gone mbooy yi da koy xaar ci taatu ndaal déedéet bokk na ci li rafetal ak mbokk sa mbokk mu mat a am soxna te amul moyen amul jumtukaay may ko may ko wutal ko soxna mag ñi dañ ko daan def dangay ngay dégg ñu naan diw moo sampal kër diw diw moo sampal kër diw nit soo ko mayee soxna euh, sampal ko kër defal nga ko njukkal loo defal nga ko loo xam ne du la mën a njukkal mukk ci àdduna waaye ah man de sama doom du ma may sama doom ku ma ñaan siwut jabar du ma ko may sama doom nit ku baax bu gisee ku baax da koy proposé ak njabootam da koy gaaral ak njabootam bokk na ci li rafetal ak mbokk tudde ko doom tudde say mbokk ay doom am na ñoo xam ne du ñu tudde seen mbokk doom waaye nit koo tuddee doom day xam ne bëggoo turam fay ndax nit fekk turam mi ki ci àdduna aw turam du fay kon nag da ngay tuddee say mbokk say doom gis nga njabootu waa waa kër Cheikh Ahmadou Bamba yëpp foo dugg dangay gis ne ñoom ñëpp dañuy tuddante ay doom maa koy euh, démb rek sëñ Mortala ni mu def ak soxna moomi tudde soxna moomi doom tudde yaaye soxna moomi doom tudde ñaari magi soxna moomi doom tuddee rakki soxna moom i doom tuddee doomi soxna moom i doom nga xam ne loolu rafetal ak mbokk mënu koo weesu boo demee kër sañ Fallou gi ma gën a miin fekk fa am sëñ Mortada fekk fa sëñ Bachir fekk fa sëñ Abdoulahat fekk fa ñëpp feneen foo dugg itam loolu nga fay fekk loolu day rafetal ak bokk bokk na ci li rafetal ak bokk nga di ko nga yóbbu ko mu aji màkk wax nañ ne euh, sëñ Cheikh Sidi Moukhtar bi fi nekk at mu jot mbooloo lay yóbbu màkk te mooy dem Dakar ñaanal leen soog dellu Touba. loolu day rafetal ay diggante euh, te moom la kilifa yi ko jiitu yëpp loolu la ñu daan def kon yóbbu nit màkk mu joxe farataam dana defaral ak mbokk wutal nit kër gu mu dëkk comme comme jamono neexul daana defar ak mbokk mag ñi dañ daan takkal seen mbokk ay néeg sàkkital ko kër takkal ko ay néeg jox ko dañ ko daan def ba léegi am na ñu koy def man xam naa sëriñ Abdul Hakim mbokk mbokkam moo xam dafa tabax kër ba mu yegg kër gu rafet ba mu yegg meublé ko ba mu mel na mu war a mel euh, nga xam ne dara manqué wul wanag yi sax am na euh, am na lépp am na ay pâte dentifrice am na ay saabu am na ay ay ay ay sarbet lépp am na jox ko caabi ji ne ko am adee adee Cheikh Ahmad Bamba loolu teraanga ba la koo ko defal euh, seen dëggante dafay rafet ba faw loolu mag ñi dañ ko daan def bokk na ci li rafet ak bokk nit wéradi te loxoom jotul ginnaawam nga faj ko loolu dañ ko daan def sëriñ Bousso bi Bousso mii ñëw États-Unis nee na ma baayam bi mu wéradi sëñ Omar Bousso sëñ Fallou moo ko yóbbu Ndakaaru moo ko faj ba noppi dem seeti ko te ñoom ñëpp noonu lañu daan def sëriñ Saliou mii man am naa baay bu ndaw boo xam ne ba mu wéradee daneen lañ ko yóbbu Ndakaaru la ca war lépp moo ko def loolu day rafetal ak bokk mooy ku wéradi te loxoom jotul ginnaawam nga faj ko bokk na ci itam nga sol sa dàll di leen gana ji mag ñi daawuñu toog gana ji di jóg ngir sa mbokk nit soo ko jaralee jóg rek day xam ne am na foo ko teg waaye toog koo la gis moo la fekke si loolu du rafetal ak mbokk bokk na ci itam liy defar ak bokk mooy joxante ay hadiya kado kado symbole la waaye dafa rafet jënd sax biig jox nit dafa rafet jënd téere jox nit dafa rafet jënd téléphone jox nit dafa rafet jël as tuut jox nit dafa rafet yoonu saa nee na te haadu te xàbboo bu ngeen ne defante ay teraanga da ngeen di bëggante kon day rafetal ak mbokk bokk na ci tam ku amul liggéey nga wutal ko liggéey dafay rafetal ak mbokk mi koo xam ne amul lu mu jàpp nga fexe ba am lu mu jàpp maa ngi fàttaliku sëriñ Baara moom sëñ Falilou bi mu nelawee am benn xale bu jógee Canada ñëw ci dëj bi wax li tax ma ñëw dagg sama njàng dama doon ñaanloo sëñ bi mu ñaan dama bëggoon ci moom ñëw ci moom pour mu ñaanal ma am bourse ba mu tàllal ba yàgg mu ne ma bourse kenn du ko ñaan dañ koy lijjanti jël téléphone am téléphoné euh, ministre bi nga xam ne booba ci euh, nu mu tuuti waaye Sorang Moussa Sorang da ko téléphoné ne ko diw laa lay booleel euh, bu ñëwee na nga ko toppatoo ba mu am bourse mu dem ñu wutal ko bourse mu dem Canada mu ne ko. su kenn du ko ñaan dañ koy lijjanti moo tax bi mu nelawee mu ne damaa dagg sama njàng ndax su ma dee gor damay teew ci dëju Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon nit ku toll ñu war koo taxaw ngir mu jàng ñu war a koo dimbale mu liggéey nga taxawu ko loolu day defar ak mbokk bokk na ci tam li defar euh, ak mbokk moo di boo xewlee nañ ko yëg comme ni sëñ Maamoor def xew yi ñëpp ko bokk waaye nag mooy jëwriñ ji da ko yëgal ñëpp ah, koo yëgal nag mu teew wàcc na wàcc nga bu teewul yow wàcc nga waaye am na ñoo xam ne ci senegal seen xew seeni bokk dañ koy dégmati man xam naa koo xam ne da doon takk jabar ndakaaru ay mbokkam dëkk ca kaw ga waaye dane magam ak nijaayam yéen mën ngeen xaar ba bis bi paase ngeen doon a ñëw ndax day xat fekk li ko waral mooy dafay rus ñu ñëw Euh, ay xaritam nekk ay ni ñu am xaalis sol yu rafet euh, nijaayam nag tànk yu weex wala wala magam tànk yu weex mu naan kii sama mag kii sama nijaay loolu lay rus loolu lay rus kon euh, sa mbokk boo xewlee mu yëg ko dana defar ak mbokk sa mbokk tam boo ko tanee nga di ko dimbale dana defar ak mbokk ndax say mbokk bu la yàlla seppee ci seen biir ma ne la gan te doo leen geesu kon ana lu ñu lay doyee nit kenn du ko lekk kenn du ko naan njariñ lañ koy doye rek boo mul njariñ ana lu ñu lay doyee kon kii tane ay bokkam te du leen dimbale euh, am nay noonu ndax nit ki nga tane te doo ko geesu dalay noonu waaye ki nga tane di ko dimbale dalay sopp gisoo boo joxee sax miskin jox jox ko sarax buy ñaan danaan li ci des yàlla barkeel dala koy yéene nit ki nga dimbale dala yéene li nga am waaye bu fekkee doo dimbale kenn kenn du la yéene li nga am xool abu Aboubacar as Siddiq dafa amoon benn mbokk moo ko jege bu ñuy wax Mistah Mistah dafa amul woon doole Babacar moo ko doon yor moo ko doon jox du du euh, añ ak reer ak ndékki waaye tuuma ju ñaaw dañu tuumaaloon soxna Aysatu xam ngeen ko dañ ko taqaloon yàq deram te jigéen deram dafa dafa dafa yomb yàqu ba ñu ko tuumaalee Mistah mii da caa xaabaabal. wax wax ju ñaaw wax ca moom wax ju ñaaw te kat mbokkum Babacar la te Babacar moo koy jox li muy dunde kon fayul bor waaye Babacar dane damay téye sama loxo dootuma ko dimbale te comme doonoon ci ñun tam li la la ngay def mooy minimum li li minimum mooy nga téye sa loxo mooy minimum mu ne damay téye sama loxo waaye alquran bàyyiwu ko ca wala yatali ulul fadli minkum wa saati an yutu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal yaafu wal yasfaxu alaa tuhibuuna an yaxfira allahu lakum dana ko yàlla ma ne gan nga tane say bokk dee leen dimbale ak lu ñu mën a def jéggal leen ne xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen ku bëgg yàlla jéggal la da ngay jéggale ku bëgg yàlla jël jëlale itam da ngay jël jëlale même li ngay sàkk ci ay sarax ba ca gën mooy bi ngay def ci say mbokk ndax boo sàkkee sarax jox sa mbokk day day doon benn benn bal nga jam ci ñaari picc ndax dangay am tuyaaboo yu jokk ak bokk am tuyaaboo yu ko sàkk sarax moo tax teraanga yi ngay def ba ca gën mooy bi nga def ci sa mbokk kon yi nga xam day defar ak bokk dafa bari du xaj ci ab jataay waaye damay ñëw ci yi nga xam ne day yàq ak bokk ba ci njëkk mooy euh, dagg sa mbokk la muy jur soo ko umpulee euh, xamu dara ci àdduna te ñu bari xamuñu dagg ak bokk la muy jur ñu bari bu ñu mënee seen bopp rek dañuy defee ne dañoo war a dem ak seen bopp bàyyi seen i bokk te boo xamul la muy jur ndax nit ki faw bis dana ñëw mu soxla nit ñi loo mën a mën a am bis boo ñàkkee da nga soxla nit ñi boo wéree bis boo feebaree da soxla nit ñi boo dee ndaw bis boo màggatee da nga soxla nit ñi bis boo faatoo nag kenn waxaale ko moom nit ki ndax bu faatoo bu kenn amul soxla ci moom ana nu muy mujje ana nu muy mujje kon nit ñi ñoo koy euh, toppatoo ñoo koy sang ñoo koy sàng ñoo koy jullee ñoo koy suul moo tax nit mën naa wàcc ay bokkam waaye bis bu demee ba am problème dañ naa ana ay bokkam ana ay bokkam ba ci njëkk moo di li yàq ak mbokk bokk na ci nit ku rëy nit ku diis nit bu rëyee day xeeb ay mbokkam bokk nag li tax nit di rëy nag mooy am am alal alal ñaar day tax nga xeeb say mbokk bu say bu say mbokk néewee doole doo bëgg kenn xam leen danga gis ndakaar koo xam danaan man samay origine samay origine mooy Njàmbur wala Waalo fekk du baayam rek moo jóge Njàmbur wala Waalo mais du du nangu ne sans papa Njàmbur la jóge wala Waalo waaye danaan samay origine samay maam ñi nga jógee Waalo dafay nëbbu ne fa la baayam juddoo même sax moom dafay nëbbu ne fa la juddoo dana samay origine mooy Saalum samay origine mooy waalo ndax dafay xeeb ay mbokkam loolu mooy rëy te rëy yàlla rek moo ko moo moo ko moom moo tax am na ñoo xam ne bu ñu amee ndomb tànk nekk ministre wala dépité wala ñoo am alal dañuy xeeb seen bokk man xam naa koo xam ne benn ministre euh, jamono Abdoulaye Wade day day mbokkam seen ñaar ndey ñoo bokk benn ndey waaye nee na su ma demee danaa fa am quatre jours cinq jours du ma ko duma ko teg bët anamu xëy na anamu wàcce na mi ngi ci biir bis bis day ñëw rek mu dajeeg man ci bunt bi yëkkati dara jox ma ne ma damaa xaw a jàpp damaa xaw a kii moo tax boo demee nag mu nuyul waa dëkkam waaw ñaar day bokk benn day kon dangay ngay xeeb say mbokk ndax ndombo tànk dangay ngay xeeb sa say mbokk ndax ndax alal te nit ñi nag koo xeeb mu yab la koo xeeb mu mu mu yab la bokk na ci li yàq ak mbokk mu ñàkk ci ñoom yitte sa mbokk ñëw doo ko faale xam naa koo xam dafa demoon Dakar seeti benn mbokkam jolof la bàyyi ko woon mbokkam ku siiw la ku ñu xam la mu ñëw fekk mu liggéey mu toog ci kër gi di ko xaar bi mu wàccee ba nuyoo gis ko dafa jël saagu soxna si ne ko kaay ñu dem nee na ñu ànd ci otoom muy dawal nee na ma defee ne damay damay wan Dakar nen ñu daw ba pompe pompe mu génn 5000 jox ma daal muy dugal ci oto ma dellu dëkk 5000 francs te kooku ku siiw la ku ñu xam la su ma ko tuddoon ñëpp xam ko waaye nanguwul mu toog fa te euh, te euh, ndey kii ak bàyyi kii ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoo bokk nday ak bàyyi lu ko waral mooy ndombo tànk ak alal day tax nga xeeb say bokk kon boo amul ci ñoom soxla. Euh, diggante ba day yàqu am na bokk yoo xam ne yu jege la waaye day tas day jeex day yàqu euh, bokk na ci euh, gis naa xale bu jigéen boo xam ne ñu ngi ko tuddee yaaye waa waaye nee na ma mosumaa gis waa ji te ndayam lañ mu tudd waaye mosuma koo gis ndax ñoom amuñu doole te moom dafa am doole bokk na ci li yàq ak bokk mooy nay boo tanee say bokk te doo leen dimbale seen diggante day yàqu bokk na ci li ko yàq mooy ngay daw di wut àdduna daw rek ngir wut alali àdduna soo ko dee def doo tal kenn te nit ñi boo leen talul seen diggante jeex na bokk na ci tam li ko yàq mooy boo xewlee duñ ko yëg bokk na ci li ko yàq mooy fecci wëllëre te daf cee bari nga jaara sa mbokk foo xam ne euh, fu fu fu doy waar la mu fàtte ko waaw mu fàtte ko soo ko defee danga naan kooku amul wëllëre bokk na ci li yàq ak mbokk mooy sëy bu ak ak ku sëy ak mbokkam ba noppi nag ñu tas tas bu ñaaw moo tax mbokk gu jege ñu bari di ko moytu ndax ak bokk bu ci sëy amee bu sëy ba baaxee mbokk ko baax waaye bu bonee mbokk bu yàqoo mbokk ko yàqu moo tax yenn sëy yu jege yi mat di moytu wala bu xasee am na ngeen jënd bàmmeel na ngeen jënd bàmmeel fas fas yéene jaamu yàlla rafetal te bañ a tàggoo bokk na ci li yàq ak bokk nit ku teel a ñàkk ndey wala mu teel a ñàkk baay ñu seetaan ko te dafa bari am na koo xam ne dafay nab ci xale di di di nab nabee gone yi ndax seen ndey moo tax wala seen baay moo tax waaye bu fekkee amul ndey amul baay doo ci moom soxla da nga koy seetaan te yonent nee na képp ku toppatoo ku amul ndey ak baay nga toppatoo ko mën nga fekk koo xam ne amul ndey amul baay nga jël ko def ko muy sa doom. encadré ko saytu ko formé ko taxawu ko ba mu tekki nee na képp ku ko def su ëllëgee àjjana maag yow nii la ñu dëkkee ni baaraam yi dëkkee noonu la ñu dëkkee mu ne ana wa kaafirul yatiimi fi fil jànnati ka haatayni ana wa kaafirul fil jannati ka haatayni ku saytu jirim ba mu tekki su ëllëgee maag yow nii ci àjjana fa amal yatiima fa laa taqhar waaye am na ñoo xam ne amuñu soxla ci ku ñàkk ndey ak bàyyi Euh, bokk na ci lu yàq ak mbokk kër yu jege mbokk yu dend kër ñu bari dañu defee ne ay bokk dañoo war a dend kër fekk da koy yàq ana nu mu koy yàq xale yi dañuy fo dañuy jàppante dañuy xeex te ñaari bu ñu xeexee bu ñu gaañantee seeni seeni ndey dañ ciy bokk te bu ci seeni ndey bokkee euh, baay ba bu dem ndaw ko ndaa da ciy bokk am na diggante yoo xam ne seeni doom moo ko yàq doom yi dañuy xeex gaañante nday yi xuloo bàyyi bu ñàkk fayda xuloo moo ko yàqu moo tax Babacar Sadiq nee na dee leen soree seeni kër ak seeni bokk te ngeen di euh, nemmi konte kenn ku ne di nemmi ko sa mbokk waaye bu ngeen jegee day yàq ak mbokk bokk na ci li yàq ak mbokk miraas nit ku faatu bàyyi àll day tas ay kër moom tas ay famille xam naa fii ci États-Unis ñoo xam ne ñoo bokk benn baay nekk ci benn dëkk mais daawuñu nuyoo ay at duñu nuyoo ndax seen ñaari nday ju dañuy xëccoo miraas dix ans kenn mënu koo miraas ñuy xëccoo alal ci ba duñu nuyoo bu yàggul rek kenn ki ndeyam feebar ba sonn kenn ki door door a seeti nag mbokk ba ne ko ana maire bi nu mu def mbaa mi ngi tane waaye daawuñu nuyoo ndax lan ndax xëccoo alali àdduna xëccoo alali àdduna moo tax dajale moom képp ku koy def rek xamu xamu xamu xamu xamoo dajale jal di jal ku koy def rek xamu ëllëg day tax sax njaboot dañuy féewaloo dañuy féewaloo te xamuñu lii ngóor mooy li sa waajur góorgóorlu ba am ko boo góor góorlu mën nga am lu ko ëpp waaye ku yaakaar sa alal sa alali ndono mooy ki gën a ñàkk jom di xaar rek ba góor gi dee wala mère bi dee nga donn ko loolu mooy ko ñàkk jom kon xëccoo miraas te ñun xam nañ ci dara dañuy dañuy teewe miraas dañuy def ay miraas xam nañ ci dara bari na yoo xam ne dañ ciy dem ci yoon di yéeg di wàcc te fekk na lañuy ñuy amul solo fekk kenn moo ko moomoon kenn ko moomoon doyoon na ko ndax musu ko dafa bëggoon lu mu ci dolli kenn ki ko moomoon bu sañoon la ci dolli dara faatu nag mbooloo mbooloo nag séq ko kenn ko ne bëgg caa am nag lu ko doy du sotti moo tax nit war a bàyyi xel loolu buy sàkku alal na ko sàkkoo ak sago na ko sàkku gëm yàlla na ko sàkkoo ak dal te xam ne ëllëg lépp dañ koy séddoo yonent bi nee na seen yëf ak yëfi jàmbur lan moo leen ci gënal ñu ne ko ko seen muy dem yëfam moo ko gënal mu ne sa yëf mooy li nga dawal ci sa bàmmeel mu lay nekk waaye yëfi jàmbur mooy li nga dee wacc wacc ko ginnaaw mooy yëfi jàmbur kon nañu bàyyi xel loolu nit ki su faatoo dañuy séddoo alalam séddoo ay këram séddoo ay otoom séddoo sax ay jabaram lépp dañ koy séddoo man am na soxna soo xam nee na ma bi sama borom kër faatoo ci digg dëj bi sama xol tooy am na waajoo xam ne bi may jaalee layu bi ñu teg cinquante mille la ma jaale te nee na ma séquma ak moom dara cinquante mille kooku xam nga mi ngi takk ngoro sigil ndigaale teg sa cinquante mille te séq séqoo ak moom dara kooku mi ngi takk ngoro xaat kon dañuy séddoo say soxna séddoo sa alal séddoo say kër kon nag lu fi jar daw bay daanu euh, li yàq ak mbokk dafa bari waaye nit ki nga xam ne nag dafa sàggan ba yàq ak bokkam ana lu mu koy jural mooy la ci jëkk mooy yàlla rëbb na ko yàlla nee na fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fi l ardi wa tuqatiu wa tuqatiu wa tuqatiu arxamakum ulaika ladina laanahum allah yàlla nee na ku dagg sag mbokk rëbb naa la te rëbbum yàlla yàlla nu ump noonu xamuñu xamuñu lu mu doon kuy dagg ak bokk yonent bi neen yàlla du ko néegee ëllëg du ko néegee yawmal xiyaam ci àdduna lay tàmbali téeñ baa ngi nii yan bi nag ca kanam lay ca kanam ca kanam lay ñëw da nga gis da nga gis koo xam ne dafay feebar mën li ko dal jàpp ko ba du mën a jóg fa mu tëdd paralysé nga defee ne nattu la fekk du nattu fekk karawaas la dañ ko tàmbali duma ci àdduna da gis koo xam ne dafay yor lu bari ba yàgg mu xëy ñàkk ko fekk dañ koy tàmbali duma ci àdduna da nga fekk koo xam ne dafay euh, man ba mu tële fekk dañ koy tàmbali duma ci àdduna yoon saa nee na bàkkaar bi tax war a tax yàlla yàkkamte ab jaamam ba du ko xaaree ëllëg bokk na ci dagg ak bokk kon kuy dagg ak bokkam yàlla du ko xaare ëllëg kuy dagg ak bokk moom du tàbbi àjjana yàlla na ci yàlla musal yonent bi ne kuy dagg ak mbokk doo tàbbi àjjana bu ñu ko toppee moom itam dañuy guddal kon bu ñu delsee nag ci nga ki nga xam ne mooy boroom guddi gi gis ngeen moom ni mu rafetale woon digganteem ak ñi mu bokkal tàmbalee ko ci Cheikh Amadou Bamba mooy mag ko ba noppi topp ci ginnaawam ndax nangu dogalu yàlla euh, doonoon koo xam daana wax naan mu mam Mamour jaara man de bu fekkee du ma dara itam ay dara rek ñoo ma séq bu fekkee du ma dara itam maa ngi diggante ay dara ndax soxna jaara dara la Mamour Anta Sali dara la Serigne Touba dara la su ma dul dara itam ñoo ma séq ñoo ma wër kon kay dafa baax rek waaye dara la moom itam euh, moom Mamour Jaara Serigne Touba da ko bëggoon ba nga xam ne mag ñi ko xam bu ñu daan dem njaarim dañuy jaar Mbàkke ziyaare ko boo ko nuyoo jàmmante boo ne ko borom saam nuyu na la rek dana bég mbég moo xam ne Euh, da ngay xam ne ëpp naa bañ a jaar moo tax mag ñi daan dem ci moom njaareem dañuy jaar ci borom saam dañ koy ziyaare door a dem door a dem ci Serigne Touba. am na nawet boo xam ne euh, Mamour Dia Mamour Dia dafa yónnee ci Serigne Touba ci njaareem ñu war a ji gerte mu yónnee jiwu wi ak dugub ji ngir mu léemu ko xam ngeen ne kii moo doyloo Serigne Touba waaw yónnee mbàkk ba njaareem ngir léemu lu ñuy war a ji. ba ndaw la demee Serigne Touba daal léemu ba noppi ne ko kooku ngeen liggéey na ngeen ko liggéeyal yéene ak pëstéef ndax moom ne ko ko liggéeyal danga am ñeenti pay yàlla dan la fay yoonatu bi fay la ma fay la moom it mu fay la ndax am na am na pay te mën naa fay euh, doonoon na koo xam ne itam euh, Serigne tubaa di kiimtaanu yàlla rek waaye lu ñuy xool ci nit ku baax mi ngi ci moom Serigne Abdoulaye euh, Bichir wax na ko léegi xoolal naa laa téeméeri téeméeri rakk. même boo dul jàng dara sax téeméer rakk sëg ak siggi rek ba muy téeméer ràkk rek ndaw ko ndaay seen xel xalaatu ko téemé sëgg ak siggi ba muy téeméer ràkk rek même boo jàngul dara ñi ko mën bariwul yow nag nga di ko def alxuraan kaamil guddi ko jot kooku wàccuwaayam ak maqaamam kenn xamul nu mu nu mu day su Musaa ñëw njaareem suñ Tuubaa day lal kaala bu ko séenee mu rek day lal day lal kaala bëgg mu toog ci waaye bu ñëwee day toog ca suuf sëriñ bi toog ci suuf ñu séq kaal gi ñoom ñaar kenn du ci toog ndax wormaal sëriñ bi sëriñ bi tam jox ko worma kenn ku nekk la ko la mu moom moroomam da ko koy jox ak nag yu baree baree bare njabootu sëriñ bi mu taxawu leen comme ni mu ko waxee jàngal Cheikh Mamadou Fadil ak ña moo tax jumaa yi mbàkki xewar xam ngeen ne dafa jëkk nekk sëñ Fallu moo ko tabaxoon waaye ba mu ko tabaxee dane damay joxe àllarba ndax ab dong day jox sëriñam àllarba moo tax ma tabax jàkk ji taxaw njabootu sëriñ Tuubaa gépp am fa sañ-sañ boo xam ne xam ngeen moo tudd sëñ Modou Moustapha moo ko tudd sëñ Tuubaa moo tudd sëñ Bara Xuré ji nga xam ne kenn ku ne ci boo ñëwee sa kër morom su boo ñëwee kër ka ca des euh, amul fooy yem Maam Mor Jaara ñi mu nekkaloon ci ay soxna daaw ci dox kenn wala mu di ko lijjanti sëñ Tuubaa moo ko daan moo ko daan lijjanti mooy seet mbokk moo xam ne xam ne kii war naa dem kër borom saam moo koy toppatoo ba mu dem kër borom saam bu fa amee gantam moo koy toppatoo waaye borom saam yoonam nekku ci këram loolu kon séq bu rafet la ñu séqoon te noonu mu séqoon ak Serigne Touba noonu séqoon ak ay rakam yëpp xam ngeen moo jàngal maam Cheikh Anta moom li mu xam lépp daanaka moo ko ko jàngal moo tax ñoom itam ñëpp njukkal ko wax nañ ci sànq Serigne Darou Assane Ndiaye ni ñu meloon ci kóllëre waaye euh, maam Cheikh Fall mu ko tuddee mooy Serigne Mbacke Fall mooy bàyyi Serigne Bass alxuraan ngi ko tuddee Maam Mor Diarra maam Cheikh Mbay mi ngi ko tuddee Serigne saa Mbay kazaalika naka noonu nag. kilifa yëpp noonu lañ meloon ak moom mu doon koo xam ne daal euh, nekk na ci àdduna ba jóge fi waaye bàyyiwu fi loo xam ne dañ ko rus a nettali li mbàyyi lépp lu rafet la ñun nag suñu ndam suñu ngóora mooy fexe ba bu ñu fi jógee ñu bàyyi nettali bu rafet wa innama al maru xadisun baadahu fa kun xadisan xasanan li man waa nit ki li mu bàyyi ginnaaw la ci ëpp solo mooy nettali xam ngeen fu ñu tuddee Cheikh Moustapha ñu ne eskay fu ñu tuddee borom daaru salaam ñu ne eskay sëriñ fàllu ñu ne eskay sëriñ Abdou Lahad ñu ne eskay ba ci sëriñ Saliou ñu ne eskay ñu baax ñëpp ku ñu tudd mën nañu wax ci moom loo xam ne xol yi dañuy tooy mooy ñoom lool moo lañ fi nekkee woon kon nag ñun bu ñu toppee ci ñoom di ay njaboot di ay taal taalibe ñu jaar fii ñun ñu jaar ci ñàll wa dañuy nax suñu bopp wax nañu ne sëriñ fàllu mu nañu tukki ci otoom dab benn waay waa ji def nii rek mu ne chauffeur bi taxawal taxawal mu taxaw mu sëgg ne damaa bëgg ko ma yóbbaale barab sàngam ñu ne ko yéegal mu yéeg rek gis sëñ Fallou ci oto bi mu nuyoo ziyaare ne ah sëñ bi day nii nga ma yóbbaale xam naa ëllëg yowmal xiyaam moom nii nga nii nga ma yóbbaale nii nii nga may jàppe rek jàpp ci sama loxo rek yóbbu àjjana mu ne ko waaw waaye nag dama laa fekk ci kaw yoon boo nekkoon ca ñax ma ca mbooy ga ñalla wala ci ñalla yi du ma la séen doo ma séen da ngaa tegee ci da ne ci kaw yoon yi mu fekk la ci kaw yoon mooy boo tegee ci yoon ku la bëgg dimbale day yomb ku teg ku tege ci yoon day neex a dimbale waaye bu fekkee fii la Sëñ Tuubaa xaal ñun ñu jaar feneen nag yàlla ñu ci yàlla musal su boobaa dañu naqari dimbale yàlla ñu ko yàgg a nañ ko teewe at yu bare bare bare bëri sëñ Mamour ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ci sa positif euh, naw nañu lool naw nañu la lool yàlla na la yàlla teetal boppam yàlla na la yàlla euh, jàppal boppam ba nga làq ngërëmul Cheikhul Khadim làq ngërëmul borom saam di beral nag soxna yi itam seen nuyoo bopp damay wax ni soxna yi lu ñu amul ci ñoom la jigéen bu laxasaayoo lu mu amul ci moom la wolof day wax ne duma bëgg lu neex nit ba ne ko yàlla nuyu nuyu na la yàlla yàlla mi ngi lay nuyu yàlla nuyu na la bëgg lu neex nit ba ne ko yàlla nuyu na la du ma ko def loolu bu ñu koy wax day mel ni dafa mënta am fekk mën naa am mën naa am ndax mos mos naa am mos naa am dafa am bis soxna Xadijatu yore ndab du kët jëm si ci ngën ji bindeef alayhi salaatu wasalaam naka laata muy egsi malaayka wàcc sidna jibril ne ko xadijatu mi ngi ñëw yore ndab xawma ma nàngam a ca nekk wala nàngam waaye bu ñëwee nee ko yàlla nuyu na ko yàlla nuyu na ko bu ñëwee ne yàlla nee na ab coonom fii lay jeex ca fii lay yem ci àdduna bis bu faatoo coonom jeex na bu ñëwee ne ko yàlla nee na château yam ko yam yam yam ko fa yam ko dencal palais yam ko dencal bis bu ci tàbbee dana xam ne ku liggéeyal yàlla bokkut ak ku liggéeyul yàlla kon ndeke yàlla nuyu na la mën naa nekk waaye nag lay tax nit am ko mooy laxasaayu liggéeyal yàlla kon soxna yi na ngeen fexe ba eh, am loolu la koy maye nag mooy laxasaayu ci gannaaw seeni sëriñ ak seeni borom kër bu ngeen ko defee da ngeen am ngërëmul yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare tey am mbégte bu rëy rëy rëy rëy ci woo gi ñu leen woo ci bis bu tedd bi ngeen wuy suñu wuy si bu rafet bi waaye bala ñoo sànni sunuy kàddu sunu kàddu yi cant ak ngërëm ci yéen dañuy jox kàddu gi sunu mbokk mi dend ak nun di sunu rakk mooy sunu cousin di Serigne Cheikh mbakke li tax mooy sunu cousin mooy yaayam sunu bàjjan la soxna Musli Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mooy waajuram soxna Musli di sunu bàjjan waaye li tax mu war a jël kàddu nii sànni ay kàddu yu gàtt ñu door a tàbbal suñ kàddu yi cant buñ noppee sëriñ bi door a tëj muy sëriñ Mbàkke Madina mii sunu mag euh, li waral loolu mooy ren ji umpale leen ne màggalug borom saam gi nga xam ne dañ koo baaxoo def at mu nekk at mu nekk ci fukki fan juróom ci weeru sawaal euh, dañ ko tàmbali woona tuddee ay kilifa ci jamono bi sëñ Abdul Xafoor doonee xalifa Cheikh Abdul Xafoor mooy caatum Mam Moor borom saam yàlla dogal ñu daan ko tudde ay kilifa ba ren jii ñu tudde ko maamam ma sàmba kon màggal gi ren sëriñ Abdoulaye yàllaay buur mi xalifa bi ak njaboot ga ca senegaal bis bi ñu ngi ko tudde ma Masamba ba waxtaan wi wiñ doon def biñ ne suba la màggal sax fondation Cheikh Massamba ñoo ko doon amal ca Sénégal taxaw taxaw màggal gi taxawaay bu rafet kon bu nu bokkee nekk fii man ak moom muy sunu xarit di sunu kóllëre di sunu mbokk ñu tudde màggal gi ba maamam ma sàmba kon jaadu nañu jox ko kàddu mu wax ci turu waa kër ma sàmba kon sëriñ bi bismillah ah, bismillah auzu ah, billahi mina sheytaani Euh, waaw asubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-daalliin laa ilaaha illaa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa kulli shay'in qadiir ñu ngi sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu kàttanal ñi fekkee bisu borom saam bi te mu teewloo ñu fi tamit ñi nekk fi e, sëtu sëtu sëñ ma sàmba bi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ tudde bis bi tey kon sëñ Mamour ñu ngi leen di ñaanal lépp loo leen séntu ci bis bi yàlla na ngeen ko am ci barke Sëriñ Tuubaa ak barke sëñ Mamour jaara mi nga xamante ne nii euh, ci alali sëñ Tuubaa ci alal sëñ Tuubaa ci la ci la ci la bokk euh, ñu ngi ñaan lépp loo séntu ci bis bi ba tax nga woote ko yàlla na ko ci am ak ñépp ñu fi teew yàlla nañu yàlla may ay yiw musal ñu ci seytaane defar defar defaral ñu suñuy suñu xol yi ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy sax ci liggéeyal Sëñ Tuubaa waa ñi ñu ngi sant bu baax nag waaw xam naa kàddu yi du gudd sax ndax ndax pare wuñ ko daf dañoo bett mais xam naa beneen yoon rek ñu ñu gën ko pare waaw ñu ngi sant mbokk yi fi teew yëpp sëñ Mbàkke sëñ sëñ sëñ Cheikh Ka euh, sëñ Abdoulahat sëñ Galas sëñ Alaaji Looñ sëñ Mbuub ñëpp ñu ngi leen sant bu baax xam naa beneen yoon ñu gën ko la jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi. noo ngi jëlaat kàddu di feeñal sunu cant di ko biral ñeel sunu boroom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moonu baaxewaat nu fekkewaat ko ren defe ko itam niñ ko defe woon daaw waaye mu mel ni at mu jot dañ ci am lu kawe njort waaye nag mbirum Sëriñ Tuubaa moo demee noonu mbiram kanam lay jëm kon noo ngi sant yàlla buur bi tabaaraka wa taala di julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal xaadimu rasul mi mënu booleel tey santaat yàlla ci boole gi mënu booleeg sëriñ Tuubaa muy alhamdulillahi alladi hadaana li haza wa ma kunna loolu sëriñ bi moo ko daan faral di wax ay taalibeem bokk na ca ku ñuy wax sëñ mat baara sow comme niñ ko nettalee bis nee na ko yéen dey wàccoo na ma ak yéen li leen war mooy di ma santale yàlla fu ngeen toll ndax lu mat a def def naa ko lu mat a wax wax naa ko ndax bind naa ba ñépp euh, wax naa ba ñépp dégg ma def ba ñépp gis ma bind bàyyi fi kon nag wàccoo na ma xanaa li leen war kay mooy di ma santale yàlla sama borom fu ngeen toll ne ko xam ngeen na ngeen may santale yàlla mu ne ko ah xanaa mbàkke nga dimbali nu ci mu ne ko bokk na ci ni ngeen may santale yàlla di faral a wax fu ngeen toll alhamdulillahi alladi hadaana nga xam ne ba mu àggee ca haasaaga dafa jël loxoom bu tedd ba junj ca dënnam bu tedd ba te lu jiitu muy wax loolu aaya boobu buñ ko masaan tekki dañ naa alhamdulillahi allazi hadaana li haza noo ngi sant yàlla mi nu gindi ci jub gi waaye xamuñu woon jub googu gumu wala boog lañ ko tegoon du ko waaye ba sëñ bi ba mu koy wax ba àgg ca jub gi dafa junj boppam kon ndeke jub googu ba ko sun borom di wax sëñ Tubaa loolu mooy li mu bëgg wax mooy war ngeen a sant yàlla mi leen booleek man noo ngi sant yàlla mi nu gindi ci jub gii joxañ boppam jub ga te moo jub ga mooy Sëñ Tuubaa su ko defee di am mbégte bu baax a baax a baax mu kawe ci ni ma ko waxee ma woo leen ci bisu boroom saam bi ngeen wuy si bu rafet Sëriñ mu Sëriñ Abo mu Sëriñ Fallu waaye yàlla dogal nu ànd koog bokk yi ni ko sëriñ Sidi Muxtaar ka waxe ne lu ñëpp bokk la waaye day am njiit ngeen jiital ma ca bopp ba waaye ba ngeen ma jiitalee ca bopp ba itam euh, dama am kilifa ma jiitalaat ko moom it ca bopp ba muy sëriñ Mbàkke Madina ndax bis bi ni ma ko waxee ca annonce bi at mu jot sëriñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur mi jiite njabootu njabootu borom saam day yees lu ndigal ci sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke mu joxaat ko ndigal yeesalaat ko ko sëriñ Sidi Muxtaar jox ndigal njaboot gi ñu nit ñu jël ndigal loole gannaaw bu ko sëriñ du Mbàkke mii xalifab sëriñ Moodu Astu jotee ndigal loolu mu jottali nu ko jaar ci sun mag gi ba agsi ci nun ñu nit ñu yeesal ko def ko nan ko daan defee kon bokk yi noo ngi leen di sant di leen gërëm ci wuy gi waaye bokk yi buñ ko doon lim kon moom mii laay teg ca bopp ba muy sëriñ Mbàkke màddina moom sëriñ Modou Astou mi nga xam ne mooy rekk sëriñ Abdou moo topp ci kii taawub sëriñ Modou Astou kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay ak ànd gi nga ko ànd ak noonu fii ci Washington nit ki noonu itam noonu lañ ko yees defee woon démb ca New York ci njiital sëriñ saaliwu Mbacke moom Serigne Abdou moom borom saam ànd koog waa daayira borom saam ba fa nekk ñoom Ibrahima lay ak mboolem bokk yi ak taalibe sëriñ Mamor Mbacke moom seex Cheikh Mamadul Mourtada moo wàcc ubbi kaamil ba tëj ko sànni fa ay kàddu yu sell soññe ci bis bi taalibe yi ko dox ko doxin wu rafet. waaye loola doyut ñu jóge ca am bokk yu nekk New York bokk ci borom saam te jege ko lool ñii di ay taalibi ñii di ay bokk ñu xëy jëm siwaat Washington fas ko yéenee ànd ak noonu ndax bu leen fàtte ne bis bi dimanche la euh, samedi la woon muy démb waaye nu jotoon ndigal nun ci def ko tey fii ci Washington kon ñi ngi sant mboolem bokk yi teew ni ma ko waxee sëriñ Mbacke Madina ngi nii di sunu kilifa euh, sëriñ ay sa Mbacke di sunu xarit mi ngi nii teewe na teewe na bis bi muy doomi sëriñ Xaadim Awa Ba ñaari rakkam yi mu feggool sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Jiilim sëriñ Fàllu mi ngi nii toog sëriñ Fàllu Mbacke moom sëriñ euh, Abo Mbackeem sëriñ Fàllu sëriñ Abo mi ngi xalifab sëriñ Fàllu doomam mi ngi nii toog Abdoul Ahad moom sëriñ fàll njurul nga xam ne moo ubbi waxtaan wi jiite dongo ya féete Baltimore moom it jël na fi kàddu mi ngi nii toog Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Mamor sàmba moo daanee léegi ay kàddoom doon wax ci turu waa kër Serigne Massamba ndax ma sàmba lañ tuddi bis bi ren euh, moom gàntu woon na sax ndax xam naa ne wax ne dafa tëlee wax waaye damaa xam ne comme suñ ma sàmbalañ jagleel bis bi ab sëtam ne fi war naa jël kàddu ci tur woowu su ko defee nag mbàkke da ngay jéem a tàggatu rek ndax mënoo ñàkk a wax ku war a wax day wax euh, niki noonu sëriñ alxaaji sàll moom sëriñ abbas sàll eh, eh, ànd naag sëriñ pap mbuub mi nga xam ne mooy imaam bi bokk ci waa kër sëñ Abbas Sall di ñu baax ñoom it teew nañ fi waaye ñu dikk ànd ak moom sëñ Pape Mboup ànd ak magam koo xam ne ci nun la bokk muy sëriñ Saliou Mboup mi nga xam ne moo njëkk a nekk président Hizbut Tarqiyyah lu jiitu aatu Diagne di ko doon yàgg ak sëñ Abdou Lahad lool di borom pas-pas xam yoon wi di bokk ci ñi yaatal ñi ngi lay sant di la gërëm ci eh, teewaay bi ak xaar gi bis bi ndax bëggoon naa yeewee ko maa ko téye waaye fàttewuñu sunu magi bopp ji nga xam ne mooy sëriñ fàlluloo Lo sëriñ Fallou moom sax laa waroon a jiital maa ngi jégglu di doomi sëñ Seex moom sëñ Ndaam Abdourahman waaye doomi sëñ Seex moom soxna soxna Jóob Mbàkke moom Seyxul Xadim nga xam ne sëñ ndaam mii maamam la yàlla mayoon seydina osmaan ci njabootuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñ boroom may maamam sëñ ndaam abdurahmaan loo ci njabootuk seyxul xadim gi la yàlla mayoon seydina osmaan ci njabootuk yonent bi mooy moom rekk la suñ boroom mayoon mu am mu dañ mu denc ñaari doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ di ko woowee zun nurayni boroom ñaari leer yi waaye suñ ndam Abdourahman Lo it moom rekk moo am ci mboolem mag yi sëriñ Touba mag yi joxoon suñ Touba seen bopp te doon ko liggéeyal moom rekk moo ci am yor ñaari doomi sëriñ Touba ndax soxna Jóob ak sëñ Mourtada ak soxna Musli ñoo bokk ndey ak baay ñu yëkkati soxna Jóob jox ko sëñ ndam Abdourahman mu am ca waajuram moom mii di sëñ Cheikh Lo ak ñam bokkal waaye yàlla dogal euh, loola jeex Cheikh Mouhamadul Moustapha mi taawub sëñ Touba yëkkatiwaat soxna musli mi bokkaat ak kookee ndey ak baay bokk kook sëñ Mourtala yëkkati ko joxaat sëñ ndaam kon mu yor ñaari doomi sëriñ Touba soxna musli jur sëñ Moustapha ak ñam bokkal kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm ci teewaay bi ak ak ñàkk a gi ndax moom xam ngeen ne du guddee fenn ndax yi mu baaxoo di def guddi dafa bokk ci ñi nga xam ne ay gaware guddi lañ liñ doon wax ci borom saam bokk na ci ñi ko donn waaye nag ba donn ko ci ci maam yi maamam it nag ndax sëñ daam Abdourahman Lo bu Maam Moor Jaara borom saam daan def téeméeri rakka di ci tas kaamilu alxuraan bi sëñ daam Abdourahman Lo ci ñaari rakka la ko doon def kaamilu alxuraan bi kee danaan jël kaamil bi tas ko ci téeméeri rakka kii jël kaamil bi julli ko ci ñaari rakka xaaj kaw bi ab rakka xaaj suuf bi ab rakka xam naa kee dana sëgg ak siggi ba sonn waaye kii dana taxaw ba sonn kon loolu lu am solo la lu mat di fàttali ngir ñu mën a roy yooyee ci ñooñee kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm ah, ni ki noonu eh, ñi ngi gërëm bokk yi fi teew yépp sëriñ baabakar Seck di sunu xarit sëriñ Abou Kane sëriñ xaali Thiam moom sunu wëlëre sëriñ Ayaan Thiam mi fi ñëwoon bu yàggut ci noonu ñoo ñëpp teew nañ fi waaye nag gannaaw buñ gërëmee nag ñii yëpp nag yi ma tudd yëpp gannaaw buñ gërëmee waxtaankat yi yii fi jot jël kàddu waxtaankat yi fi jot jël kàddu te sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moom suñu fàllu njërul ubbil leen te wax wax ju am solo ji mu wax ñu gis ne ki njëkk a jël kàddu mooy sëriñ Abdoulaye Diop Bichri wax fi wax ju am solo ju ubbi xel yi ak xol yi nga xam ne moom mi ngi door a ñëw ci réew mi miinaguñu waxtaanam ñu ngi koy door a fekke mu wax fi wax ju am solo waaye mu tege ca sëriñ Saaliwu Sow moom it wax ci wax wax fi wax ju am solo ka ca tege nga xam ne moo doon main conférencier bi te mujje kàddu gi kooku nag bokk ci Sëriñ Tuubaa euh, li tax bu limuma ko ca bokk ya euh, lim nekkoon main conférencier bi moo doon moo tax ma doon ko xaare mujje ko mujje gi it mujjeek màggal la muy sëriñ Seex Sidi Muxtaar Ka di boroom xam-xam bu yaatal waaye boroom xam-xam bu sàmm buy jëfe xam-xamam nga xam di sunu magit nag teg ci waaw di suñu mag ndax euh, euh, sëriñ euh, Seex Ka Baye Seex Ka mii waajuram ma Baye sëriñ Mbàkke Ka mii waajuram sëtub sëñ Sàmba Tukulóor Kala loola danaa ci ñëw waaye Baye Baye sëñ Mbàkke Ka waajuram di soxna Xadi Gay Xari Gay ak waajuru sunu waajur noonu di soxna Astu Gay mi jur sëñ Moodu Astu ñoo bokk ndey ak baay waaw soxna Xari Gay la ak soxna Astu Gay am na keneen dama teelu tur wa waaye moo jur suñu Usmaan sëñ nanati sëñ bi soxna ummi kon soxna xari Gay ak soxna Astu Gay ñaar ñooñu doomi sëriñ Madu Gay jëmmooy lañ sëriñ Madu Gay jëmmooy mooy juróomeelu ki jëbbalu ci sëñ Tubaa moom bi mu jëbbaloo sëñ mu sëñ Tubaa moom soxna Astu Gay moomee sëñ Madu Gay jëmmooy moomee ca la Tubaa waxoon ne ndaxam moos bu fi njëbbal yemoon mu doy ndax la toppoon rasulullaay topp na ma bi sëñ Madou Gueye jëmooy jébbuloo sëñ Ibrahima Sarr Njaañ jébbulu sëñ Tuubaa dane la toppoon rasulullaay topp na ma kon bu fi njébbal doy yemoon mu doy daal ne ba Madou Gueye jëmooy jébbuloo mel na ni waa muhaajiroon yëpp jébbalu nañ ba Ibrahima saar jébbuloo mel na ni waa lansaar yëpp jébbalu nañ te muhaajiroon ak lansaar ñoo toppoon rasulullaay sallallahu alayhi wasallam waaw kon sëñ Madou Gueye jëmooy moomee la sëñ Tuubaa woo ne ko Madou Gueye ndax am nga ci sa waa kër ñu mat a dem kër mu ne ko waaw Mbàkke kan ak mu ne ko astu gay ak xari gay mu ne ko xaaka saa ñooñee laa soxla dama bëgg bu ñu jullee takkusaan nga wax fere yi ne leen nañ toog seere ko ndax dama leen di fasal sama ñaari doom ah sëñ Madou Gueye jëmooy wax fere yi loolu ne sëñ bi ne ku julli takkusaan bu mu dem na toog day fasal ñaari doomam soxna ñaari doom yooye mooy ñaar ña mag ci kër sëñ Madou Gueye jëmooy muy soxna astu gay mi jur sëñ Modou astu ak soxna xari gay mi jur sëñ Modou Baara jurit sëñ Mbàkke ka juróom moom mii toog moom Seydi Muxtaar Ka ah ñu julli tàkkusaan sëriñ bi woo sëñ Madu Gay ne ko eh, nga ne ko ci mag mu ne ko Astu Gay mu ne ko nañ xut bu fasal ko Moor Soxna sëñ Moor Soxna mooy taawub Maam Moor Jaara mu ne ku ci tege mu ne ko Xari Gay mu nañ ko xut bu fasal ko Baara Saamos mooy sëñ Baara Mbàkke borom guy mbind mu taa mu yàlla dogal sëñ tubaab moo xot bu ñaari pas-pas yi ci genn tàkkusaan kii mu jox ko sëñ Moor Soxna kii mu jox ko sëñ sëñ baara kam jox sëñ moor soxna moo fa taawloo sëñ moodu astu mii suñ waajur ñun ñii kam ca ka ca tey ka ca mu fasal ko sëñ baara mu taawloo fa sëñ moodu baara mi mag ci sëti sëñ tubaa waaye soxna muslim sëñ moodu baara dafa may faral di wax ne li ko yéem ci dàkkub sëriñ tubaa foo ko fekk day jam ndax ñaari pas yi mu fasandoo ci genn tàkkusaan kenn ku nekk nga am ca kër kam njëkk am ca kër googa moo mag ci sëti kër googa ndax suñ Modou Baara moo mag ci sëti sëñ Touba yëpp sëñ Modou Assoo mag ci sëti Mamoor jaar yëpp waaye yàlla dogal soxna Xari Gaye moomee ñu joxoon sëñ Baara bi sëñ Baara nelawee ñu jox ko euh, euh, Baye Seex Ka mu am ca sëñ Mbàkke Ka waajur sëñ Sidi Muxtaar Ka mii nga xam ne bàyyi suñ Mbàkke Ka ak sëñ Modou Baara ñoo bokk jenn ndey ak Alaaji Bàcc Ka mi ngeen di dégg ca tey Taysiir kon looloo tax muy suñ mag ci wàllu googu waaye bu ñu demee ci wetu sëñ Sàmba Tukulóor ka gi xam ngeen ne sëñ sàmbatu Tukulóor ak Maam Mor ñoo seeni ndeyee bokk ndey ak baay waaw Maam Mor Anta mi jur Sëriñ ak borom saam ak ñiñ bokkal ak sëñ Sàmba Tukulóor mii maamam moom mii sëñ Sidi Muxtaar ka Maam Mor Anta ak sëñ Sàmba Tukulóor seeni ndey ñoo bokk ndey ak baay kon loolu bokk gu jege la kon su ma doon lim liñ bokk duma jeexal moo tax moom waxtaan wii mu jël ci guddi borom saam yelloo na ko waaye yelloo na ko it ci bokk gi ñu seq ak moom kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci kàddu yu rafet yi nga fi wax te lépp di jariñ mu jëm ci ak bokk bokk googu nga doon wax nag sëñ maam Moroom sëñ Mourtala fan yi damaa dégg mu wax ci lu am solo mu ne ku ci am mbokk rawatina mu baax na ko jàpp bu dëgër te jàpp ko jàpp bu sérieux daal di cay teg ne xam naa ne su ma amutooni bokk danañ ma bis dana ñëw ñu tam ma waaye nag ku ma tam tam tam ñu bari loolu la ci sëñ maam Mor teg li bëgg wax na kon ay bokk jar naa fonk kon thème bi mu jël ci mbokk lu bàyyi lu jar a bàyyi xel la waaye ni ki noonu noonu la ñuy yaatalee sunub nuyoo ak sunu mbégte ci euh, ministre conseil bu ambassade moom la fi excellence ba Ababacar Diagne yebal moom moo sës ci Ababacar Diagne moo ku ñuy wax soxna euh, bu Jaal ak ku ñuy wax euh, amadu kan ministre conseil Amadou kan ñëw na fi ànd ak Alioune Badara Diop bu protocole waaye dañoo teel a yeewi ko ndax saal bi heure bi ñu waxoon xam nga rek rendez-vous sénégalais boo leen joxee heure danañ ca teg lu bari ñoom ñi jàng tubaab dañoo fonk heure moo tax ñu teel a ñëw teela dem waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay. Euh, buñ ñëwee nag ci sunu bokki bopp yi nga xam ne ñoo féete ci soxna yi te bokk ci boroom saam kon dañ cey jiital soxna ummi mbàkke soxna ummi mbàkke doomi sëñ mbàkke ñooro la moom sëñ seex atta mi ñeenteelu xalifa Mamor Jaara moom ñu dénk ko sëñ Gédem sëñ Njaaña moom sëñ Mbàkke busu mu doon ku baax teew ànd ak nag délégation bu mag ànd kook euh, rakkam euh, soxna Marème Bousso soxna Marème Bousso du doomi suñ Abdou Wadoot moom suñ Morxee Bousso mi ngeen di dégg ñii nettali ne sëñ tubaa dafa woon sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Massamba ak sëñ Mor Roqee Bousso maamam ne leen ooma doom ooma rak ooma jarbaat li fi ne moo di taalibe aslamtu nafsi jébbalu ñu lay digal ngay def ñu lay tere ngay bàyyi ak yam ca teg xeso bu gudd la ngir bëgg leen a dimbale sëñ ma roqee Bousso moom nga xam ne jarbaat la woon ci sëñ tubaa moo jur baayam waaye yemut ci loolu sëñ Abdul Wadood yaayam ma Mor Jaaraa ko jur muy soxna roqee soxna roqee Mbàkke moo jur euh, soxna roqee Mbàkke ak ak sëñ Baara Xureja mii ñetteelu xalifa ma Mor Jaara ñoo bokk ndey ak baay soxna moo mooy maamam moom mi kon ñëw na ci bisu maamam waaye mu feggoog rakkam wala boog doomam laay wax di sama doom man mi Euh, soxna Ndey Faatma Mbakke Ndey Faatma jóge Richmond moom it ñëw di doomi sëriñ Moustapha Mbakke gaynde Faatma di ko yiw foo ko fekk day muuru li li lislaam digle ci jigéen foo ko fekk loolu lay jëfe man loolu bokk na ci li tax ma fonk ko doomoo ko princesse sax laa koy wooye léeg-léeg kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay boobu yi waaye niki noonu ñu ngi sant sunu bokki bopp yi nga xam ne dañu ne lëjj ci kër sëñ moor Jaara te te te te fees ci dell nag muy soxna Bintu Jeng ak soxna na bu jën ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay jeex tàkk ci sëñ maxtar ba moom borom saam soxna Bintu Jeng di sunu tànta ndax sunu waajur sëñ Basiiru Mbàkke maxtar moo koy denc kon sunu waajur la doon ku bëgg borom saam amul ci sago waaw man mii di wax ak yenn sax amut ci man sago ngir tudde giñ ma tudde borom saam kon soxna Bintu ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay ànd ak soxna say na Saynabu sama ju baax ji ki noonu fàttewuñu sunu soxna di soxna Mbène Fall jóge New York jóge euh, Baltimore ànd ak waa Baltimore gépp waaw ñu ràññee ci sunu bokk yi sant Silla ñoom say na Saynabu ak i rakkam euh, madame Ndaw soxna Faatu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ànd nañ def délégation bu mag ànd ak nag waa Baltimore ci njiital sëriñ Abdoulahad Mbacke sëriñ Ousmane Ndiaye ak soxna Faala yaakaar naa ne soxna bu mi jiite daayira Maam Jaara war naa ñëw waaw kon mu ngoog nee nañ ma ñëw na waaw mu ngoog kon soxna Seynabu Jéen moo jiite daayira maam jaara ca Baltimore ñëw na ànd ak soxnay Baltimore yépp soxna maam jaara Seck ñëw na ànd ak magam euh, ku doon lim da ngay juum waa waa Baltimore yépp daal kenn desul ñëpp ñëw nañ ñoom sëñ Baara Ndaw ak sëñ Biram Seck ñëpp kenn desul sëñ Baye Fall Seck kooku moom c'est exceptionnel su ma koy tudd sànq euh, sëñ Abdoulaye dafa xaw a tardé ma di ko laaj lu tax mu wax ba tudd na ne ma faal Fall lañ doon xaw ma ne ko gannaaw tudd nga ci Baye faal rek ba mbaa yàlla naa leen. waaw loo wax ba tudd ci Baye Fall rek mbaa yàlla naa loola lu ko waral day ko am Pastef koo xam ne day jëf foo ko fekk day jëf mbub mii ma sol moo ko xotti ñawlu ko Sénégal indaale ko ñaari at yi weesu mbub yi may mbubb yi may sol ci màggalu borom saam bi moo koy xotti moo koy ñawlu kon kooku jëf ja seex Ibra doon def ah mën naa ne moo fi exemplaire ci Cheikh Ibra fii ci ci ci area bi ku ñu fonk la ku ñu jox cër la na ko ñëpp sëñ bi ñu ngi la koy seeral waaw Ah, sëñ bi itam nee na mbub mam soloon moo ko xotti te ñaari tabaski yëpp mbub mi mu sol nee na moo ko xotti moo ko ñaw kon kooku jëfkat la te du wax waaw waaye nag soxna mbenn mi xam naa sax bokk yi bu ñu gisee may sol ak summi dañ danañ ko jàppe bëgg àdduna te fekk du bëgg àdduna de suñ tubaa rekk nu ñor sol ak summi bi taluñu ko sax yàlla xam na ko dañ ci jublu sant sëriñ bi rek waaye li ko waral nag ci bis yu mel nii mooy da ngay gis ñu am ci yow yéene ku ne xotti mbubb ñaw la ko ne la su ma sañoon nga sol ko ci bis bi mbub mu weex mi ngeen grand mbub bu weex bu rafet bi ngeen gis ma njëkk koo sol soxna mbenn Fall moo ko xotti ñaw la ko jox ma ko sama soxna ca Baltimore ne ma dama bëgg nga sol ko ci bisub borom saam bi te bëgguma kenn mer ma daal di koy njëkk sol ba ñëpp gis ko ma dem summi ko sol bi ma Baye Fall sekk jox ndax moo ko moo ko baaxoo def bañ kenn a tax may solo ko sumi waaye du bëgg àdduna waaw na ko ñëpp xam waaw su ko defee kon soxna yi yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag fàttewuñu waa Washington gii nekk ak ñun ci ay soxna su ma limee euh, damay njëkke président daayira bi muy sëñ Ablaye Seck ak mboolem ñi koy jàppale nag bàyyiwuma kenn waaye nag ka jiite liggéey bi guddik borom saam gi ki jiite liggéey bi mooy sëriñ xalilul xadim faal di ko am pasteef ci guddi yi di ci woote am ci pasteef da am ci pasteef bu rafet a rafet a rafet ànd kook nag waa daayira bépp soxna aji aj pasteefam ñépp xam nañ ko waaw waaw waaw waaw euh, soxna may buso moom sëriñ Njaaña Buso moom sëñ Mbàkki Buso waaw moom sax moo fi jiitu nag te sonn lool maa ngi jégglu xam nga maanaam man bind list daf ma dama dama koo tële lool bala damay jàkkaarloog nit ñi di leen séen mooy tax ma mën a wax waaw moo may fàttali ñi ma war a tudd waaye dama koo séenut ci kanam tam waroone ne ci kanam ndax kooku mooy borom yëf yi nag soxna May Buso ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci teewaayam ndax euh, euh, bàyyi sëñ njaaño moom ak sëñ Moodu su niñ demee dafa ëpp sax ak bokk kon soxna May Buso moo mooy bàjjani sëñ Xaadim Buso mais di imaam ci New York moo bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi moom moo fi jiitu sonn fi lool sax ndax yàgg na fañ ko waroon a jëlee ndax di woote jotuñu di jégglu coono yi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam waaye bu ñu dikkee ci waa daayira Washington sëñ Xalilul Xadim Faal mi jiite liggéey bi ak soxna Aji Aaj ak mbool ak soxna Ndey Jóob ak mboolem ñi ko doon jàppale ci liggéey bi euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi ak jàppale gi waaye nag soxna yi gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne nii taxaw ngeen ko ci guddi borom saam yi ku lim dangay ngay juum moo tax bëgguma dugg ci lim détail yu soxna yi kon suma limee ci daayira bi soxna aji aaj ak sëriñ xalil faal mel na ni yóbbaale naa ñëpp waaye nag su ma su ma dee tudd ñi nga xamante ni bii ñooy sunu bokki e, bopp yi ñu nekkal te bokk ci tariixa tijaan su ma ca limee sëriñ Abdou Diagne mi nga xam ne moo jiite ITFA teewal fi sëriñ Ahmed si ak ñi mu àndal day daal di doy ak soxna ma jigéen su ma dee bu bu dee kër sëriñ sëriñ eh, Cheikh Umar yu Tall su ma ci limee soxna Madina Diop mu yóbbaale waa kër Cheikh Umar Foutiyou Tall gépp waaye nag dafa am ñu ràññiku ci liggéey bi fii te yàgg cee ràññiku ca ca Cheikh Mourtala ja ba léegi ci soxna yi muy soxna astu aaj kenn demul mu des bu liggéey bi agsee fii waaram a nga ca ndax moo daa dalal Cheikh Mourtala moo boroom këram sëñ mbay caam di teete di wommat di xelal di dimbale ci loxoom ci léppam sëñ Elaas Caam seere na ko ba tàyyi kon ñu ngi lay sant soxna astu aaj ci sa taxawaay bu rafet bii nga taxaw e, jiite njaboot gi waaye di la cant googu ñu la koy booleeg soxna maam Penda Cuun mi nga xam ne mooy présidente daayira soxna yi fii ci fondation Xaadimu Rasuul kon soxna yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaayu rafet yi ngeen taxaw ah di sant nag sunu xarit sunu wëllëre kuy taxaw ci nun lu nu xewle mu ñëw euh, di sunu mbokku gambien waaye mën naa ne sax sénégambien soxna Khady Mbengue ku am solo ku am maanaa ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay bu rafet bii nga teew niki noonu fàttewuñu soxna Feli ture soxna xadi jeeju fàttewuñu kenn soxna mbaaco di suñu xaritu bopp baltimore mook rakkam soxna mati waaye da bu may e, liñ naan ku lim juum moo ci ne waaye am na koo xam ne moom laa waroon a jiital sax ci soxna yi nag ndax mooy soxna ki jiite liggéey bi kooko mooy kan soxna sofiyatu mbay di soxna sëriñ xalil faal def liggéey bu am rafet bu liggéey def di def liggéey bu rafet doon kuy yaatal nag waaw doon kuy yaatal ku bëgg boroom këram te di ko jàppale kon yàlla na yàlla jàppale la te barkeel sa njaboot ci liggéey bu rafet bi ngay def kon daal ku ma fàtte nañ ma ko fàttali ndax su ma sañoon lim ñëpp waaye dafa am koo xam nag mooy sunu nijaay bopp nga xam ne moonu moonu may soxna sa nga xam ne mooy sunub aaw nag ca Sénégal kooku mooy sunu nijaay sëriñ Abdou Salaam Mbacke sëriñ Abdou Salaam Diop waaw su ma ko santalee Mbacke sax mu bëgg waaye sëriñ Abdou Salaam Diop la tudd nekk New York nga xam ne moonu may soxna sunub aawa ca senegaal sëriñ Abdou Salaam ñu ngi lay sant di la gërëm ci tànnal gi ngeenu tànnal ab aawo ba sunu mbir dox na mu war a doxee ñi ngi lay santit ci bàyyi gi nga bàyyi si yitte yëpp dikk fii fekke si bis bii ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci teewaayu rafet yooyu waaye fàttewuñu nag sëriñ Aliou Fall di bokk ci waa kër sëñ Basiiru nekk Baltimore wala sax ma ne nekk New York wala sax na Washington ndax moom mi ngi fépp fu sëñ Touba nekk ma nga fa sëriñ Aliou faal nekk ak sëñ Ousmane Ndiaye ci Baltimore ñëw na ñu ngi koy sant di ko gërëm niki noonu la ñuy sant sëñ Xaadim Guèye di sant nag kuréelu daayira Washington bi ak sikkar si ak xasida yi ak njàngam alxuraan mi lépp yàlla na ko sun boroom nangu sa mbërtal ko ci ruuxuk maam boroom saam ak i bokkam di ñaan xasida yu sell yi ngeen fi jàng yàlla na ko yàlla barkeel jàng ngeen fi waskurullaha fi ayaamin maadudaat muy xasida goo xam ne sëriñ bi dafa wax ne bisi bis yu sell yii lu mel ni bis yi aj di waaj ñëw képp koo xam ne bisi aj yii bi muy euh, fi ayaamin maadudaat muy ayaamin maadudaat yi ñuy wax yaa ngi ciy jàng xasida googu lépp la ñay ajaka ajaka umra di def mel na ni yaa ngi koy def kon bis yi nañ fonk xasida googu di ko jàng luñ man waaw ñu ngi leen di sant baax ci yëkkati gi nag gi ngeen ko fi yëkkati waaye nag dañuy beral cant ak nuyoo ki nga xam ne mooy sëriñ ma jama mbay nga xam ne mooy jëwriñi Bichri TV dama bëgg nag lii may wax ci Bichri TV ñu bokk ko teewlu day lu am importance ndax dafay télé boo xam ne bi mu juddoo yàggul waaye doon télé bu yaatal tele bu yaatal boo xam ne bërki démb bi ñuy def annonce bi am na mbokkum taalibe mu ko jege ne ko yéen kan mooy seen sponsor mu ne ko Serigne Touba mu ne ko Serigne Touba xoola loolu koo xam ne amul benn compagnie boo wéeru ci moom muy sa sponsor di la jàppale ci say say say liggéey ba pare ngay saytu liggéey bi muy dox na mu war a doxe fii ci Amérique fee ci Afrique fee ci itali Europe fépp foo dem télé baa nga fa te bu la neexee jàpp ko sax sa ordinateur te Serigne Touba la def muy sponsoram te néew nañu doole war nañ leen a jàppale kon te Serigne Touba nag taalibi yi la am gannaaw Serigne Touba taalibi yi la am daa daana wax ne dee leen taalibi yi nañ ma fonkal sama mbokk yi ndax sama mbokk yi amuñu lu dul man taalibe yi nañ ma fonkal euh, bokk nañ ma fonkal taalibe yi ndax amuma lu dul ñoom kon taalibe yi la Sëñ Tuubaa am gannaaw taalibe yi la Sëñ am te moom teleem bi Sëñ Tuubaa mooy sponsor am taalibe yi kon ñoo war a jàpp ci télé bi mu jëm kanam maa ngi def annonce daayira yëpp fu ab daayira ne ci àdduna bi moo xam Afrique la Europe asi ba Amérique nañ bàyyi xel télé Bichri TV bi mu jëm kanam ñu sponsorisé ko nañ ko war a sponsorisé loolu maa ngi koy wax président daayira ne ci ñëpp taxaw télé bi jëm kanam ndax télé bi kat lu neex Sëñ Tuubaa rek lañ ci wane. télé la boo xam ne doo ko jàpp mukk ci sab saal di seetaan ba mu yàgg ab xale dugg si nga ne changé channel ndax gis naqari du am abadan télé boo xam ne doo ci seetaan ba mu yàgg am kilifa dikk nga ne changé channel ndax lu baax rek lañ fay wane. kon télé bi télé bu mat a bàyyi xel la nañ ko sponsoriser na nam ware loolu maa ngi koy ñaan bokki taalibe yépp maa ngi ñaan nag ci barkeb borom guddi gii di borom saam télé bi jëm kanam ba jur yeneeni tele yu baree bari gis naa ne Cheikh Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Mouhamadul Fadal moo joxe tur moo leen tànnal tur ñu tuddi ko Bichri TV kon yaakaar naa tele boobu dana barkeel ndax télé boo xam ne doomi Sëñ fàllu moo ko jëmbat di ko suuxat faw mu meññ te meññat ma danañ ko jariñoo kon yàlla na jëm kanam su fekkee am na ku ma fàtte maa ngi ciy jégglu euh, di yemale foofu samay kàddu di sant nag euh, di yóbbante nag sama nuyoog sama ngërëm soxna faala ci soxna Seyna bu Saar ne ko jot naa yóbbantee maa ngi ko ma nga ba Colorado waaye teewut muy fàttaliku bis bi di la yóbbante ci man kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant nag sunu mbokk yëpp bàyyiwuñu kenn di sant sëñ Mansour Ndiaye mi nga xam ne moo fi teew ci waa euh, euh, communauté euh, gambien bi SGII waa kër Cheikhul Islam Cheikh mm, Ibrahima Niass ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di santaat bu baax nag sëñ Ablaye Diop Bichri ci wax ju am solo ji fi wax ndax boo seetloo wax na fi wolof wax na fi anglais wax na fi français wax na fi espagnol man damaa yéem sax waaw bi mu waxee ba daaneel am na ku ne ci sama wet daf ne ma ah sa gars yi ci des am nañ jafe-jafe de waaw waaye boo koy seet buñ doon doon jàmbaar duñu fi wax lu am lu am lu am solo waaye nag dañuy ay jàmbaar moo tax waaw kon sëñ Abdoulaye Diop Bichri ñi ngi lay ñaanal ñi ngi lay welcome fii ci United States of America euh, di ñaan yàlla suñ boroom mu dëgëral fi say jéego barkeel ko Ah, eh, na ko ñëpp bàyyi xel bagaasam yi mu indi na ko ñëpp wecc ko na ko ñëpp wecc ko waaw ah, te na ñëpp bàyyi xel borom xam-xam yi liñ fi wax lu am solo la lim fi wax lu am solo la li fi sëñ Sidi Muxtaar ka wax ak sëñ Saaliw Sow lépp lu am solo la te li am solo ci bis yi mooy ki ñuy fàttali ko ak yéen yem daan def ñu di ci góorlu di ko roy waaw ñu di góorgóorlu di ci roy loo xam ne. wax na ko ci ay waxam li tax roy ku baax baax soo munta mel ni moom itam da nga raw say morom loolu sëñ Saaliwu moo ko daan wax sëñ Sidi Muxtaar ka fàttali ko léegi kon daal foofu laay tënk samay kàddu di jéggulu ci guddal gi ci xam ne sama yéene rek laa doon wéye ah, di jox kàddu gi sunu kilifa sunu mag di sëriñ Mbàkke Madina moom sëriñ Moodu Astu di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér muy koo xam ne ku ma yàgg a taxawu la ndax ba may lu ndaw la ma sëñ Moodu Assu booleek moom teg ma ci loxoom boole kooku leetar ne ko yóbbul ma ko gasaan tegal ma ko ci loxoy sëñ Mataar Marema sëñ Mataar Marema si di doomi sëñ Moodu Xarisi sëñ moor Xarisi ak sëñ Malick Baye Sène si bokk ndey ak baay ñaar ñoo xam ne yàgg nañoo jàngal ahlu Mbàkke muy ñaar ñoo xam ne Sëriñ tubaab moo ne woon Moor Moor Xare ak Malick Baye Sène day bu ñu fekke woon ba alxuraan di wàcc faw alxuraan dana leen tudd ndax seen ànd bu rafet ba kon nag suñ muur xari si doom ji ñuy wax suñ mataar ma moom la ma tegoon ci loxoom ci ndigalal suñ mu dëstu moom mii lañ ma boobu booleeloon waaye yóbbuwuma ca daara ja rek sànni ma fa ni ma koy faral di waxe dama faa yóbbu ba pare teg ma ci loxo yu wóor amoon waa kër gu gu baax gu ñuy wax waa kër Baye Isma Cissé di ay jolof-jolof yàlla mayoon leen barke ñu amoon as tuut suñ mbakk yi yëkkati ma boole ma ak ñoom ñoo ma daan tibbal ceeb booba ceeb yombut ca daara ja di ma indil aw mburu bis bu set ku ñuy wax njaga siise doomam daa amoon fuur di lakk mburu di jaay mburu dëkk bépp moo leen daan jaay mburu waaye man sama mburu bis bu set dana ñëw dongo yi dañ ma daan rang ma leen di coppatel di leen ci jox waaw kon loolu bu ma ko defalee ca daara ja ba tumuraankewuma fa sonnuma fa moom mii la kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci loolu yi sëriñ bi ñu ngi lay bége di la dalal jàmm di la ñaanal euh, di la jox kàddu gi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 seydina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi rilwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk fi teew yépp daanaka sax lu ñuy wax amatu fi li ñépp am nañ yéene teew fi ci guddi gi teew nañ fi ngir yàlla ak ku mag ki nga xam ne moom lañuy defal ko gi muy borom saam euh, liñ fi war a wax lépp wax nañ ko jàng nañ alxuraan jàng nañ xaside yi euh, waxtaankat yi boroom xam-xam yi wax nañ liñ war a wax lépp dégg nañ ko jëfe rek moo ci des sëñ Maam Moor itam li ko war lépp def na ko woote nga ñëpp wuy si nañ lim nga ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp woote bi sant nga gërëm nga xam naa sax liñ ma wooyee na ma ñëwal toog ci kaw tribune bi xaw na ma xaw na naa am as njàqare tuuti ngir boroom xam-xam yi toogoon fii di wax ku mel ni sëñ si di Moxtaar Kam yi nga xam ne dañuy day sama mag di sama xarit eh, li mu fi wax eh, buñ nar a ñëwal toog wax dana jafe lool nga xam looy wax waaye nag damay def ni damay damay damay indi rek li ni ma sëñ Modou Astou ni sëñ Modou Astou daan def moom boo doon teew ñuy maye ab sëy daf may woo man mi xam ne man may rakk ma ñëw ba toog ba ba toog mu yónniwaat leen ndaw mu woo sama mag euh, bu ko dee man mu loo ma ci euh, càmmooyam toogloo sama mag ci ndeyjooram daal dina ma sëriñ ma xaw ma ne ko mbàkke mu ne ma xutbal ah, xutbal sëriñ Abdou loolu def na ma ko ay yoon yoon ci biir mbooloo ba loolu sax ci laa jógee xaw xaw xam lu may lu may lu may wax ak ñeme wax ci kanam kanam kanam ah, kanam aw nit maa ngi moytu nag di daw booba léegi waaye mënuma fexe bu mucc rek mucc jafe na ma lool am nay jamono dama ragaloon ab néew lool dama ko ragaloon lool foo ma gis ab néew mas nañoo tëral am néew ci buntu armeel yi ma jógee ci armeel yi ñëw ñëwuma ko romb ndax ragal ab néew waaye sëñ Modou Asta am benn bis ab taalibeem faatu ñu guddee ko indi lool mu bàyyi ba onze ci guddi mu ànd ak man ba ci armeel yi ma ba ci jàkka ja ma yaakaar day jullee néew bi mu daal na ma sëriñ doxal julee néew bi te ragal naa am néew ba nga xam ne yàgg naa ci ba ma taxawee ci kanam di julee néew bi foog naa néew bi dana ma song kon nag mënumaa ñàkk wax dara tey noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant seexuna ahmadu bamba xaw su naa wa rajaa ina fi dunya wal axira mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg noo ngi tàmbalee cant gi ci sëñ sëñ sëñ nangam Diop Bisri sëñ Ablaye Diop Bisri mii wax na fi wax joo xam ne tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiina am na solo lool xam naa bu fekkente ne da nga doon nëbb moom da nga feeñ insha allah taala yal na la yàlla defal tawfeex bu baax li nga wax dégg nañ ko te fas nañ ko yéene jafe itam insha allah taala waaye sëriñ Saliou Sow moom daa dikk jàqloonu ba nga xam ne danoo yaakaar ne ñun ñëpp sax sawara lan jëm waaw dafa noo tiitloo ba nga xam ne man jàppoon naa ne man mosuma def ci lu baax dara waaw léegi nag yàlla yàlla woo yàlla bi mu bi si si si di Moxtaar ka ñëwee nag ma yaakaaroon sax day day jàll waaye mu ñëw ci ak bokk moom ak bokk nag sëñ Sidi Moxtaar Ka wax na ci tey loo xam ne ñun mbokk yi war nañ koo dégg bu baax a baax a baax te fas ko yéene jëfee ngir ñun mbokki mbàkki mbàkki yi de ak mbusoo bi yii sunu bàyyi ak sunu maam yi de nan daan jokkee ak bokk mel ne ni ba a jafe léegi day li nekk ci li xew léegi mooy ñaanu visa ak tukki dem Europe dem dem Afrique dem naa Abidjan dem naa dem naa Italie dem naa Espagne ba kenn talatu talatu talatu sa mbokk toujours da ngay dajeeg sa menn mbokk moo xam ne yéen a bokk ci baay wala ci maam waaye dañ lay nuyu leeg moom loolu nag li Sëriñ Sidi Moxtaar wax euh, fii ci ak bokk jar nañu jàngat loolu bu baax gën ci delluwaat ginnaaw te xam ne tukki moom doonul loo xam ne euh, lu lu lu ñuy wéyal la lu ñuy def rek di ko bàyyi la kon bu ñu delloo Sénégal nan xam liñ bokk tey yëgante tey seetante tey warmaalante tey fonkante waaye sa yow suñu Seydi Muxtaar Ka maa ngi lay xamal ne man dey euh, am na lu ma la defal loo xam ne fayaguma ko ndax sunu danoo bokk bàyyi ngay sama mag di sama xarit waaye damaa jógee poroxaan euh, sonn lool bàyyi lépp ñu rux ñu ruxi ba sa dëkk ba nga ne yendu fa ba ngoon ngir yàlla ak bokk te ba ma fay jógee ne woon naa la maa ngi lay séentu boobu booba tey gisaguma la kon nag da nga xam ne lebal naa la loo mu fayagut waaw lebal naa la loo mu fayagut waaye li nga wax ci ak bokk nag ñun ñëpp dégg nañ ko te fas nañ ko yéen jëfe insha allah taala kon mbokk yi sëriñ Mamoor mii nag mooy sama rakk joo xam ne yàlla defal na ko tawféex ndax tawféex ji mu am mooy dafa génn réew ma ñëw fii ci États-Unis di Amérique ngir daan dooleem ak liggéeyal sëriñ tubaa mu mel ni sëriñ tubaa da koo tànn indi ko fii ci Washington fekk fi nag bokki taalibe yu baax yoo xam ne jàpp nañ ko te jàppale ko lool jàpp gi ak jàppale gi mboolem mbokk yi fi ñëw xam nañ ko waaye li may wax rek mooy li sëñ Sidi Moxtaar wax kaa wax ci ak bokk lépp a ngi ci sëñ Maamoor ndax sëñ Maamoor day bu ko neexoon bu nekkee fii bu mbokkam téléphoné muy nëbbatu ak naan nekkuma fi wala mu tëj téléphone am wala wuyu waaye genn kilifa guy ñëw fii ci Washington te daje daje man ci senegal wala ci réew mi te néew ma sëñ Maamoor gàttandu dalal na ma teral na ma yëg na ma wan na ma ñëpp gunge na ma yaakaar naa ne amut Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom sëñ Abdou moom sëñ Fallou ñëw na fii daaw ceeb Sénégal la ma ne sëñ Maamoor sa rakk baax de sa baax ji de ba demee dama teeru dalal ma da nga boole ma ak ñëpp sëriñ Cheikh am sëñ Abdou Khadir barki démb rek lan dajee ci New York waaye ba ma ko jàpp loxo ba may laata tàqal tàqal moom sax ci ba may laata eh, sama loxo bi dindi ci loxoom dafa na ma sëñ Maamoor Mbàkke nuyu na la toppatoo na ma defal na ma lu nekk ci àddina te loolu mboolem ñi fii ñëw Mbàkke Mbàkke yi ak mbusoo bi ak ñu sant loo ak doomi seex yi fii ñëw yëpp xam nañ loolu kon nag man li may wax sama sama cant ak sama ngërëm gannaaw bu santee mbooleem ñi nga xamante ne ñëw nañ ci màggal gi te te daan ñëw daaw ak daaw jeg yëpp di sant waa doo dëkk bi ak ñi nga xam ne jóge nañ fu ne ñëw ci màggal gi maa ngi leen di santal maa ngi leen maa ngi leen xamal ne sëñ Maamoor mi bokk yëpp sant nañ ko gërëm nañ ko ndax kat xëy na sëriñ Tuubaa lay liggéeyal ci bokk yi xëy na sëriñ Tuubaa lay liggéeyal ci dëkk bi waaye nag am na yeneen dëkk yoo xam ne ay mbokk nga fa te te yàlla dogal na ñun ñi nga xamante ni dañuy tukki di di fa waa di wàcc ci dëkk yi di seedi xeñtu bokk gi am na dëkk yu am na dëkk yoo xam ne ay mbokk nga fa te kenn te wàccatu fa am na dëkk yoo xam ne li may wax am na nañu xaar tukkikat yi xam nañ ko boo leen téléphoné kenn du jël ba ñëpp dañ koy romb am na dëkk yoo xam ne sax romb lañ koy def loolu sëriñ si xam nañ xam nañ li may wax waaye képp koo xamante ne jóg nga jëm si Washington xam nga ne sëñ Maamoor a ngi fi wóor na da nga am foo dal wóor na da nga am ku la woo wóor na da nga da nga am ku la won nit ñi wóor na da nga gis taalibe yi tey itam sëñ Maam ci loolu ci loxol sëñ Maamoor la nekk kon sëñ Maamoor jërëjëf ñoo ngi lay ñaanal ci doole sëñ Tuubaa mi nga xamante ne moo yaakaari jaam ñi te sëñ Moor Jaara mi nga xam ne moom la ñuy màggal tey sëriñ tubaa la yaakaar ñoo ngi lay ñaanal ci daraja sëriñ Tuubaa moom mi liggéey bii ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu te yàlla may la fan wu gudd lool may la wér lool te lépp loo xamante ne ni loo bëgg la ci sa diggante ak tubaa Touba yàlla na ko yàlla defal yéen bokki taalibe yi nag sëñ Maamoor sant na leen waaye nuyu tam sant nañ leen ndax taxawaay bi rafet na lool ko ñuy màggalal magi mag ngeen ngeen ba dagg seen yite yëpp fu ne waaye jógee fa ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëriñ tubaa ak jëmmi Maamoor Jaara ñëw toog fi ba ak dëkk bi ni mu xatee toog fi ba waxtu wi wax dëgg yàlla loolu kenn mënu ko weesu ñoo leen di sant di leen gërëm bu baax a baax baax di ñaan yàlla nu teewee ko ay déwén yu bare bare bare bare te kenn bañ a manqué te ku fi ñëw itam aaju joo fi indi yàlla na ko yàlla faj ku fi indi sa jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ci dara ji borom guddi gi muy borom saam jërë ngeen jëf sun xol sedd na ko yi nag danoo mun danoo mun ta wax ci biir mbooloo nag waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na yàlla faj aaju yëpp ci daraje sëñ Tuubaa barke sëñ Tuubaa barke Maamoor Jaara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ bi def ñaan. Euh, balaa sëriñ bee def ñaan dafa am lu ma fàttaliku rek sànq bi may biñ may laaj ay laaj sànq ci njëlbeenu bis bi dafa am interview bu ñu ma doon interviewé ci yeneen média yi fi nekk bokki yor média ci Virginia ma am témoignage bu ma def am mbokk mu ma ne na ko wax na ko wax ñëpp dégg ko ndax mu ne moom euh, mbokk moo ma ne ma loolu lu jara yaatal la ndax ñi ko xam bariwut loola kon laay tëjee samay kàddu loola dama ne bi ma waajee laaj di ma laaj lu waral bis bi ak soloy bis bi ma wax ko ko ba pare di ko wax nag ci ki waral bis bi diggam ak sëriñ bi ak yàgg gum yàgg ci sax lu bokkut ak bokk giñ bokk ñaari waajur yu sell ya euh, loola dama ne ko borom saam mooy ki njëkk a liggéeyal sëriñ tuuba xaadimul rasul ci eh, saahir ak ci baatin la ko sabab mooy ba ñu nekkee ay waxambaane nga xam ne boobu sëriñ bi kenn xamagu ko eh, sëñ Mor Anta Sali doon doonoon sëriñub jàngale rek waaw ah, xatmu bi waaw sëñ Mor Anta Sali sëriñub jàngale rek la woon ñu bari xamaguñ ko woon borom saam dafa xewaloon ayug ayug bis goo xam ne dañoo gis saa bu xëyee war aw fasam duy satal ak ndoxam topp xibla ak penku di tari di sotti ndox mi di tari di sotti ndox mi di tari di sotti ndox ba satala gi jeex mu dellusiwaat ci kër gi ci teen bi duyaat satala gi topp xibla ak sowu di tari di sotti ndox mi ba satala gi jeex mu dellusiwaat duyaat satala gi topp xibla ak ndeyjoor def noona dellusiwaat duyaat satala gi topp xibla ak càmmooñ def noona nga xam ne mën nañ la dafa def east west north and south ñeenti xibla yépp mu xewal bis bu set mu def ko def ko ayug bis nit ñi tàmbali nag di ko xumtoo naa doomi suñ moranta sali ju mag ji day kii ñuy wax moom mar jaara boobu moom mar jaara lañ ko daan wax ki ñuy wax moom mar jaara dafa mel ni daxaw a des ak matt des matt mooy ku xel mi neexut ñu ne lumu ñu ne ah, koo xam ne saa boo xëyee duy sag sasa la war a saw fas la gu ne nga topp koy sotti ndox loolu koy ku wér du ko def ah ba maam xaalima jaxate kala jot ci xaalima jaxate kala moo doonoon ngoo suñ moranta sali moo daa diisoo moom ci yu bari xaadu yi ma jaxate kala dikk nettali ko xaadu yi mu maranta sali mii seen waajur ne ko sa doom ju mag ji nga xam moom mar jaara de war nga koo jege mu ne ko lu tax mu ne ko dañoo wax ne xel mee neexut daa des ak matt mu ne ko lu tax mu ne ko dañ ne nag saa bu xëyee euh, topp ñeenti xibla yi xibla gune muy mu waru fas di sottim ndox ak loolu ku wér du ko def suñ moronta sel ko baax na loolu danaa ko saytu daal di woo suñ moor jaara mu ñëw mu ne ko li ma dégg sa bàyyi xaali wax nu mu demee mu ne ko ah, lu mu mu ne ko dañ ne da saa boo xëyee war saw fas duy sag sata la xibla gune nga topp ko di tari di sottim ndox la yépp loolu loo ci jublu suñ Mor Jaara daal ne tekk daal di sëgg ba yàgg mu siggi ca kanam waajuram wu tedd woowee daal ne ko ah, gannaaw yaay waajur wi de te laaj nga nu ko mëneesu la koo ñàkk leeral waaye keneen ku mu doonoon ku dul yow de di ko ko mën a wax waaye loolu de ab liggéey la boo xam ne dama cee am ndigalal sama boroom ndax sama boroom dama xamal ne dafa am sama rakk ju sës ci man rëkk yoo xam ne bu ëllëgee noon yi danañ ko génne te fu ne danañ ko fa jaarale sama borom nam ci liggéey bii may def bu ëllëgee fépp fu mu jaar mu lewete ni ndox sedd ni ndox lépp di jàmm ci moom moo waral may def liggéey bi sëñ Moranta Sali ne tekk ne ko xanaa kooku Moodu Mbàkke mu ne ko waaw moom la de mu ne ko jógal dem loolu rek laa bëggoon a xam ma wax nag ne euh, dox gi mu doon dox di waru fas di jaabante dem ak a dikk loolu saayir la te physique la waaye tari gi mu doon tari loola baatin la moo tax ma ne moo njëkk liggéeyal sëñ tubaa ci zahir ak ci baatin te booba kenn xamagul sëriñ bi kenn xamagul sax sëñ Mor Anta Sali mii waajuram loolu moom laa waxoon léegi kon ma wax ko ñëpp xam ko ñu gën a bàyyi xel xam ne borom saam ak borom tubaa ñoo bokk seenug bokk li sëñ maam moorum sëñ Murtala wax rek ci ubbite euh, màggal borom saam gi démb ca New York ba mu jëlee kàddu ga lam wax ne borom saam daa def liggéey bu jafe li gën a jafe moom la def ndax bokk ak nit ndey ak baay muy sàmm ngay sàmm muy jaamu yàlla ngay jaamu yàlla mu xam nga xam ngay liggéeyal yàlla muy liggéeyal yàlla mu fees nga fees ba noppi wëlbatiku jox ko sa bopp waaw mu ne soxna jaara mu daaj teg soxna jaara ay jant la am amul lu dul jant ndax soxna jaaratullaahi ñeent la am ci kër suñ moranta sali ka ci jiitu may mooy borom saam borom guddi gii moo ci jiitu ka ca tege mooy Cheikh Ahmadul Xadim yaakaari jaam ñi tey ak ëllëg kooku exceptionnel la mënoon nañ koo sax bañ a boole ci lim bi ndax li suñ borom dogal ci moom waaye moo ca tege bu ñuy wax ci bokk ka ca tege mooy maam Abibulaahi maam Abibulaahi moom la Sëriñ Tuubaa waxoon Cheikh Ibra ne ko ak ñam ña fa toogoon ne ko ndaxam moos Abibulaahi mii bu dundoon man Ahmadou bàmba kenn du ma xam Cheikh Rafaal ne ko ah ndax ku tee ñu xam la kenn du xam kooka waaw Cheikh Ibra foofu la tolloon ci Sëñ Tuubaa hmm. waaw kon Abibulahi moomu kon mbir la woon koo xam ne boo dundoon Sëñ Tuubaa kenn du xam Sëñ tubaa kooku mbir la woon hmm. kacca tege di soxna Faati Mbàkke kon ñeenti ñi yàlla dogal sox maam Abibulahi ak soxna Faati teel a nelaw soxna Faati moom dañ ne dañ koo jël ñii ne dafa réer loolu ab natt la bu rëy rëy bu dal ci kër Sëñ Mor Anta Sali kon soxna Faati borom daraja ji kawe la ndax natt boobu ko suñ borom natt kon soxna jaara jurtum saarit kon day tekki rek ne la maam Cheikh Mbay bu Louga mii waajur sëñ Saam Mbay itam tudde ko borom saam dadaa wax ne néeg soxna jaara néegu leer la waaye kër borom saam baytul wilaayati la soo fa bokkee boo judduwaaliwut ak wàlliyu sax boo góor góorgóorloo tuuti doon wàlliyu loolu la ko waral mooy soxna jaara jaa tax néeg soxna jaara ci boppam moo sell loolu li tax na du ko nettali ji bëgg jigéen ñi ngeen gën a góorlu gën a sellal seen bopp waajal seen bopp ngir wàllu yu nekk ci asamaan si te bëgg a juddu mën a juddu waaw waajal leen seen bopp dégg naa Cheikh Modou Fadul moo ko daa wax ah, ah wàllu yaa ngi nii tiim eh, diggante asamaan ak suuf bari ba dee bëgg wàcc waaye amuñu jigéen ju ñu wàcc amuñu jigéen ju ñu wàcc mooy jigéen ñi ñoo waajalut seen bopp kon waajal leen seen bopp waaye waajtaay wa war roy ci soxna jaara ni mu meloon ba tax mu am lim am kon bu bu ko defee rek lu ngeen jur dana barkeel lu ngeen am dana barkeel foofu laay tëj samay kàddu di ko ñaaxe suñ bokk jigéen ñi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox kàddu gi sëriñ bi mu ñaan ñu delluwaat ci it yi amel nañ leen cant ngërëm goo xam ne amul àpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf Mbacke eh, ah, xatmu bi waaw jël ko jàng jàng jàngal xatmu kon ñu teewlu sëñ bi jàng xatmu bi tëj kaamil bi ñu delluwaat ci it yi bismillah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 bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu alazim wa balaxa rasuluhu nabiyu almustafa alkarim wa nahnu ala ma xaal rabbana wa mawlana min alshahidin allahuma irhamna bilqurani alkarim anfana bil ayati wa dikri alhakim waj'alu lana xujjatan yowma ddin allahuma infana bima sarafta fihi min alayati wa dakirna bima darabta fihi min almasulati وكفر بتلاوتي عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا خدم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان aw taarifin aw taqdimin aw taxirin aw siyaadin aw nuqsaan aw taawilin ala xayri ma ansaltahu aw taajilin inda tilawati aw kasalin aw saxi lisaan aw xuufin bi xayri waqfin aw itqaamin bi xayri mutqamin aw isaarin bi xayri bayaan faktuhu minna ala tamaami walkamaali walmuhazam min kulli alhaan warsuqna fadla man xara'ahu muaddiyan xaqahu ma al aadaai walxalbi wallisaan وهب لنا به الخير والشهادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من منا من الخفلة والكسلان وأمنا من أصحاب الخبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أجل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث وأعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا واستقل ميساننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وسوء الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بالخير يا ديان اللهم اجعل القرآن عصيبا ربها قلوبنا وجلاء أنزاننا وصحاب خمومنا وخائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحسة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في السلمة وضليلنا في الحيرة ومنخزنا في الفتنة وعصمنا به من السيخ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وعقب بسيادة آمالنا واغرن بالعافية خدونا وآزالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال حفك على على سنو على سنوبنا ومن علينا بالستر بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك دورنا وانتقادنا وأمن من الجهل والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما أخرعناه والنور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وسرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولروح شيخنا seex Mamour Diarra Mbacke wala roxina seexuna wa xawsuna warjana seexna seex Ahmad Bamba wala arwa wala arwaahi abaina wa ummahatina wa masaaxina wala arwaahi jamiil muslimin wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa mawlana muhammadin xaatimi nabiyin wa imaami mursalin wala roxi maam as Guèye subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waltu bina wa xawina wa kullana wa hablana usnal xitaami rabbana salliyan ala nabi wa sallimi wa axdibi ajata kulli muslimi salliyan ala nabi wasallimi waqdi bi ajata kulli muslimi salliyan ala nabi wasallimi waqdi bi ajata kulli muslimi